Merci beaucoup de nous rejoindre sur Télévision Futur Média on se retrouve euh, en direct pour une soirée spéciale Saint-Valentin mbokk ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak Télévision Futur Média ñu ñëw ak yéen en direct euh, ci soirée spéciale bu ñu leen di euh, proposer fii ci Télévision Futur Média tradition la at bu jot ñu àndandoo ak ñi ñu tuddee aji bëggante vous yéen ñi nga xamante ni yéenay célébrer bis bi c'est vrai que tey journée bi yëpp ñu ngi leen doon gunge à travers ay rendez-vous yu am solo yoo xam xamante ni euh, jot ngeen ci dund euh, bis bu am solo bi nga xamante ni euh, mooy 14 février pour beaucoup de gens c'est une fête commerciale pour d'autres c'est une fête qu'il faut absolument célébrer normal ñun ñooñu la ñu àndal ñooñu la ñu bëgg a bégal tey préparé nañu leen yu am solo yoo xamante ni tey guddi gi euh, dañu leen koy jagleel c'est vrai euh, mardi la tombeel ren Saint-Valentin jour ouvrable la forcément suba da ngeen di liggéeyi mais naturellement il faut ngeen boole ci yi ñu tuddee ay neex-neex xeetu neex-neex yooyu nag bëgg nañu ngeen du ko tey euh, tout au long de cette émission des artistes vont nous rejoindre à tour de rôle pour woyal ñu mbëggeel waaye je ne serai pas seul ci plateau bi Kya Aidara mooy sama Valentine tey ci soirée spéciale Saint-Valentin ci télévision Futur Média merci là et j'espère que tu passes une bonne fête depuis ñu euh, xëy bonsoir euh, euh, kontaan kontaan ah. euh, ba ñu xëyee ba tey ñu ngi fêté Saint-Valentin ah oui Pape Cheikh Saint-Valentin nekk journée boo xamante ne liñ naan ñun chaque jour lañ koy célébrer ah. mais tey comme ni nga ko waxee du fête commercial pour ñun c'est un moment c'est une journée extraordinaire mm-hmm. feetu mbëggeel la Euh, ku ci nekk yaa ngi toog tey di wan ki nga bëgg wala ki nga bëgg sa cofeel mu nekk feetu jonge pour ñun jigéen ñi mhm. ba ñu xëyee ba tey ñu ngi daw mhm. donc Pape Cheikh ci kanam comme ni nga ko waxee dinañ ànd ak ay artistes yu bëri mhm. Euh, yoo xamante ne dinañ ñu euh, accompagner tout au long de cette soirée accompagner leen yéen ñi nga xam ne yéen a ngi toog jàkkaarloog ñun ñu daal di wane suñu mbëggeel dinañ leen wan nu ñu leen bëggee waaye yéen itam ngeen wan ki ngeen dendal ni ngeen ko bëggee def leen li mu leen wax loolu la kii yaa wax donc def leen ko won leen euh, ki ngeen bëgganteel ni euh, bëgg ngeen ko on connaît beaucoup de gens yoo xamante ni tey euh, xam naa ñu ngi naan bon tey bis la bu spécial mais ñoom dañuy célébrer mbëggeel bis bu jot ñaar ñi ñu njëkk dalal ci plateau bi kenn ki elle va rester avec nous sama sama sama sama sama sama xol la mais dañoo bàyyante on raconte l'histoire bu ca kaname mais Mbaye Dieye Faye tamit mu ngi fi pour partie bu njëkk bi tey ci euh, télévision Futur Média Grand euh, ñu ngi lay nuyu merci d'être là euh, ana sama mpañ sëñ Mpañ mi ngi fa Pape ma wax asalaamaaleykum. Mhm. nuyu téléspectateur TFM. Mhm. nuyu àdduna bi yëpp. Mhm. ñu nekk Sénégal Europe États-Unis Asie. et am contentement nag teew fii nag tey. ci plateau bu am maanaa bu yanj bi. nga xam ni nag. ñàkk laa xam wóorul Pape Cheikh. waaw la de aaway. Ah la aaway. Ah ki yaa toog nii suma wet. Ah ma jàkkaarloog sama jigéen. aaway sama mbokk muy Ngone Ndiaye. Euh, di wax ni daal. Mhm. bésu mbëggeel la. Mhm. chacun avec sa chacune chacune mhm. avec love. ah oui dama leen di faral di dégg ngeen naan mbëggeel amul prix. kenn du ko kenn du ko waxaale dégg naa. amu ko. waaw xam nga li gën a neex ci àdduna moom mooy mbëggeel. kër goo dugg mbëggee la nga fa. Mhm. mbedd mi mbëggee la nga fa. Mhm. foo dem fu ne mbëggee la nga fa. mbëggeel dans l'air. mbëggeel dans l'air. ah oui. mbëggeel dans les maisons. ah oui. <laughs> mbëggeel dans les bureaux. ah oui mbëggeel partout. mbëggeel dans les orchestres. waaw ci orchestre yi sax dafa am mbëggeel. ndax diggante Mbaye Ndiaye Faye ak Youssou Ndour. waay soppanteeg mbëggeel rek moo ko lal. wallaahi wallaahi en ah, de passage ma koy saluer. Mhm. di saluer madame Ndour. Mhm. Aïda Coulibaly xam naa mhm. ñoom fi ñu toog. ñu ngi joxante ay flowers. ah flowers mooy lan fleur. ah fleur d'accord. waaw ku nekk joxante yi moo tax ma jël ay bouquet tey def ko fii. waaw te xam nga damaa ñëw kii ak kaas ne ma ana solo rouge bëgg a rocce ci bouquet yi pour roofal moo ko ma ne ko déet. <laughs> joxe nga trop <laughs> fleur yee man loolu laa def. Uh-huh. dama wàññil xale yi nekk ci mbedd mi di jaay. waaw wàññi leen doole parce que. dafa ngelaw te sedd. dëgg la de ma rek ma rocci. nga jël ci ñaar waaw jël ci ñaar def ci poos bi mi ngi noonu. <laughs> mais Pape Cheikh Mbaye Dièye bëgg naa mu wax ma moom dafa def rose rouge. oui xam nga rose moom. Mm. jigéen ñi la. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. dama leen di sentir. rouge bi. c'est le sang. Euh, def noir. mooy po bi. Mm-hmm. moo tax ma def nii tey. Mm-hmm. waa boo xoolee maam a ngi nii. Mm-hmm. mbaye ngi. <laughs> àdduna la nga porté lépp. ma porté lépp sama xol. <laughs> sànq sànq tu as parlé de jonge te euh, Ngone Ndiaye Géwél a ngi fi. waaw Pape Cheikh xam nga ni bu ñu nee jonge rek suñu xel day dem ci Ngone Ndiaye Géwél moom nga xamante ne euh, bu ñu nee euh, jonge ci ci ci sur tous les plans. astuce de femme. astuce de femme. comment retenir son mari. ah Pape Ngoné daf ci am sax yu garaaw mais dañ koy bàyyi mu nuyoo ba pare Ngoné bonsoir. waaw kii yaa ah, nuyu naa la salaamaaleykum yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu yéen tamit euh, ku ci nekk ci turam ak santam mm, di kontaan trop ci invitation bi di la nuyu di la fon bu pata ni ma koy waxee di nuyu farmata yi liggéey ak Malamine ak Mbose Pape nuyu naa la bu baax a baax. sargal naa la yow aussi ah vraiment wane naa sama cofeel gën na wane sama cofeel ci yow ndax macha allah du ma ci jógee benn yoon waaye may nuyu sama kilifa sama mag sama lépp sama mbokk muy Mbaye Guèye chéri Mame Ndiaye nuyu naa ñëpp nuyu naa ñëpp tey nag la dafa doon bés bi nga xamante ne man damay faral di wax ni jéeg jépp koy fêté pour toujours la waaye comme que at mi nag tubarkàlla dan ko wutal benn bés ah daal di jël le 14 février def ko fête des amoureux tey moom defe naa dina mel ni bëgg a jóg suul. <laughs> at méngawul euh, kii yaa ne ma euh, mbëggeel amul at y a pas d'âge cest yenn saa yi mu dugg ci euh, diggante yoo xamante ni ku jigéen ki sax mën na mag ku góor ki mais mbëggeel rek a mën lool en fait y a pas d'âge en amour. Mbéjé dañu naan l'amour c'est de 7 à 77 ans. waaw ouais. mais oui parce que di ngay gis ku am 50 ans. takk mhm. 20 ans dëgg la. ngay gis ko am 60 ans. Mhm. takk 30 ans. c'est vrai saa yi mu jaaxal nit ñi waaye ñaar ñiy bëggante euh, ci at yu différent yooyu noonu ñoom du ñu ñu du ñu sentir sax différence bi. déedéet. Mhm. et même ku góor ki sax. Mhm. ku jigéen ki mën na koo mag. waaw ñu sëy. diine maye na ko. dëgg la et xam nga mbëggeel pap dafa fort. xam nga loo xam ne éternel la. jaadu na. comme bés bi tey. ñu feete ko. parce boo fàtt mbëggeel rek moo mën loolu. xam nga tey jii boo jógee pour takk jabar. Mhm. wala ngay labat. Mhm. mbëggeel rek moom moo mën a maye loolu yónni sa pap waaw quand même. wala yónni sa ndijaay. mbëggeel rek ko ko mën de. waaw it ñoom dañuy yàkkamtee dem. waay waay waay ci ah say waaw doxal la ndaw googu. et eh, dañuy yàkkamtee ñibbisi. Mhm. ba ni la may nan la. pour rendre le compte. pour rendre le compte. ak at bu mënti am ci diggante ñaar ñi. waaw est-ce que kenn sañ na yónni sa papa bu dul. Euh, mbëggeel mbëggeel du tout. kenn amul fitam dëgg la de dëgg la de mais. l'islam may na la nga yónni sa papa wala nga yónni sa ndijaay ah. ne leen dem leen doxal ma soxla bi ah, ah oui dafa rëy ah. vrai moo tax nag boo demee euh, ba mu xaw a sax dëgër wala muy ñagas mhm. fàttalikul bés mhm. tàkkusaan bi nga yónni sa pap voilà moo tax ñu naan souvent sëy mag ñi ñoo ci war a jàppee tout ça je pense que loolu itam beneen sujet la euh, ci biir émission bi mais toujours pour rester dans cette mouvance de euh, mbëggeel amul at euh, bu dee ci jigéen bi yenn saa yi nga gis xale bu tuuti ku mag takk ko ñi nit ñi xaw ko xoole beneen beneen bët dina am sax ñu ciy wax ni xale bi dina rey paa bi waaye paa bi defe naa du du ci yëg dee. du ko rey ah. Eh, ci domaine neex neex de wutiwu ci dara barkaal la ok mais mais neex neex kon c'est eh, vrai mu lu am solo yenn saa yi nga gis wax lu am solo nga gis pa ñu ne kii xale bi dina ko rey de loo wax loo xalaat ci loolu ci neex neex boobu moom laa la wax nee naa la tubarkaal la ci domaine neex neex de wutiwu ci dara de hmm. dafa bëri yërmande ah. tubarkaal la dina toll ci fenn fi nga xamante ni ci bànneex bu ree da ma maa dem dama lay tontu. vas-y <laughs> ak a jonge wutiwu ci dara wutiwu ci dara nit ku nekk euh, fii nga xamante ni tubarkàlla fa ngay jotee sa nafsu bakkan. Mhm. fa nga jëm amul xale amul mag. Mhm. ki lay satisfaire. tubarkalla di topp say besoin di xool li nga xamante ni moom nga bëgg mhm. mu di ko def kooku tubarkalla fu nu gestoo rek gis la ci moom moom nga tuddee seytaane euh, cest am na ñoo xamante ne dañ naan xale bi mooy sama seytaane waaw ah. ni da ngay ni da ngay takk ku la mat seytaane hmm. góor day takk ku ko mat seytaane mhm. léeg-léeg nga ni euh, góor takk jigéen ñu naan dafa jeng fekk jengul mhm. dafa gis foofu lu mu gisul woon fële hmm. maay wax ak yow ayo tam <laughs> ah, ah, dëgg la de dëgg la de Mhm. waaw euh, am na. waaw xam nga sax ñenn ñaa ngi wax ni borom jabar yu bari sax du màggatee dënn. Ah. du màggatee dënn. mais mais mais Ngoné neex neex bokkewut bokke bokkewut dara ak dee. parce que dafa bëri yërmande mais waaw mais wax na dëgg parce que Pape xam nga euh, di nga takk xale bu ndaw. Mhm. pour nga wax li may confirmer rek li nga wax ci. amul âge. dëgg de. Euh, mhm, say mhm, doom. Mhm, duñ la sañ a. sàllalu. wala sax ñu def la ni. mais sa soxna mën na ko. waaw parce que euh, boo demee ba takk ko rek. at amatu fa. at bi ni nga koy gis ci boo defee naka sudul noonu. Ah. ñu ne la du sa moroom. d'accord kii sa kilifa la. Mhm. mais à loolu. Mhm. Euh, at bi dafay balancer wu rek. Mhm. nii. yaa ngi dégg. day yooyoo quoi. waaw day yooyoo mais waxuñu la nag ni. waaw waxuñu la nag ni euh, ki la mag lool takk bëgg na la ba takk la. nag euh, respect bi loolu lañ leen bëgg woon euh, ci euh, nii ñu tàmbalee tey soirée spécial Saint-Valentin ci télévision Futur Média ndekete euh, mbëggeel amul at. trop trop trop man de lu ma si gën a une semaine mi ngi nii ni sama papa ni sama yaay kenn waxul ak man si kër gi nii lañ may rombee. déedéet kay ba mu mujjee wax man nee damay choisir entre Assane. wala ñoom fi ne nii man xaw ma lu ma war a def. mais eh, ana Assane moom léegi moom lu ci xalaatam ci loolu yëpp. kon fu ne nii xam naa ne moom am na lu ko metti parce que naroon naa jël samay bagages pour génn kër gi mais soo gisee boobu ba tey dew ma c'est parce que moom moo ma arrêté ba dew ma boobu ba léegi te man fum mu ne nii dama sonn mais foog ma def ko foog ma génn dem. en tout cas daal mu nekk suñu génération wu pas bëgg na la te loolu moo ci am importance vraiment man tamit dama ko bëgg dama ko bëgg. Ndiaye guddi na di da ngaa mënul ñëw tëdd. daal dama gëmëntuwul. man mi itam de moo ma dal gëmmantu man la ndax mbiru Nafi moo ma jaaxal lool. gis nga Nafi juruñu ñun ñooy ay way jurum dëgg la am na 19 ans nee na na waaye bu man xale bu ndaw la amul sax at. loolu nga wax ànd naa ci ak ñoo ci bokk yow Nafi jot na ñu won ko ne ñun ñooy ay waajuram. su suñu waaw la war a wéy. bu déggee li ñuy wax waayam ji. xam nga ni tarak laa te mag yow bokk ndey ak baay ma féete wala tamit. may ma na fi nag yéen ko jur. waaye xam nga ni gënu leen ma koo bëgg. ndax bu nanguwaatee dellu école jàng gannaaw yàlla yow la. te ku ne xam ne formation dafa cher lool. nga fayal ko ñaari at ah kon ne war nga ni wax dëgg fa yàlla nafi sa nafi la. année bii lay jeexal formation. bu ci jógee métier bu baax lay am incha nga gën ñu mën a jàppale te loolu lépp ginnaaw yàlla yow yaa ko def ah, te mënoon na si bañ a fekk léegi nag ñun ñu yar sunu doom ba mu tekki yow ngi jël ko ñu jël ko encadré ko defal ko léppam mu dem ba war a tekki teral ay waajuram benn sàmba booy bu jóge fële dox àddinaam dox àddinay jàmbur wër ba teeral ñëw fekk doom bi da bëgg koo kër suñu loxo mësuma koo wax mu dellu ko waxuma laat nag di jël ñaari atu yàlla di ko fayal na fi ginnaaw fayaloo ko nag war ngaa xam ki ko fayal te dañ ko wax yow boo ko fayaloo kan moo ko fayal sàmba booy bi fi ñëw asan loo kay bëgg soxna ñëw fii ngeen dàq ko ca xaj mbir mi delloo naa la ko tegaat ko sa loxo. Ah, naka sa diine saa yi de. tuur macha ma nga bëgg. chauffeur laa bëgg. chauffeur bu rëy gi. vas-y. melu caaxantaan voilà c'est vrai que euh, mbëggeel moom amul at on a essayé euh, d'expliquer ça ci euh, sketch yoo xamante ni ñu ngi ci àndoon ak sunu équipe sunu gars yi nga xamante ni sujet bu ci nekk dina am nu ñu leen ko expliquer si vous nous rejoignez vite fait ñu ngi doog tàmbali nu sommes ensemble avec vous en direct soirée spéciale Saint-Valentin ci télévision Futur Média donc li ñu wane léegi kii ah dafay rejoindre li ñu doon waxtaanee Mbaye Dieye ak Ngone Ndiaye ni mbëggeel moom amul at. Euh, Pape Cheikh am na benn euh, poète bu mag bu naan l'amour est naissant maanaam euh, fu ne lay juddu uh-huh. ci diggante ku nekk la mën a juddu di nga gis xale bu bëgg mag mm. nga gis xale nga nekk féete ndaw nekk jigéen mm-hmm. bëgg ku la mag mais nga bëgg ko am ci moom cofeel boo xam ne yow mënoo ko sax expliquer c'est noonu nga mën a nekkee xale lu góor bëgg mm. comme sa diggante ngoone Pape <laughs> mu am cofeel lool ci yow nga bëgg ko torop dafa différent ba mu gënal la lépp dafa différent en fait dafa différent mais Ngoné euh, tey xam nga dafa nekk comme ni nga ko waxee sànq bisu mbëggeel mm. euh, nekk bi su euh, jonge ku ne jigéen ñi ni ma ko waxee sànq ñu ne jonge suñu xel day demaat ci yow Mm-hmm. alors tey lan ngay digal suñu euh, moroomu jigéen yi nga xamante ne euh, ñu ngi toog di seetaan. Mm-hmm. Euh, jéeg ji nga xamante ne fi ñu toll nii ñu ngi toog ci seen wetu alaaji yi. Mm-hmm. lan nga leen di digal ngoone. waaw kii li ma leen di digal du sori xam nga mbëggeel moom li mbay wax léegi rek. avant tout li nga xamante ni mooy fondement bi mooy respect. Mm-hmm. jëkkër danga koy jox cër te xam ni moom mooy sa jëkkër mooy sa kilifa. Mm-hmm. mais à part loolu tubaarkàlla saa yoo leen war naa mën a neex. Mm-hmm. jigéen da ngay créer à chaque fois saa yoo jàkkaarloo sa jëkkër rek. war ngay créer li nga xamante ni la dina euh, dina kontaan. Mm-hmm. lu koy bégal ci lu nekk. Mm-hmm. lu toll nii nag saint moom vraiment. Mm-hmm. li may conseillé jeeg ji mooy que ni nan koy préparer. dafa jar a dal sa tapis rouge comme ni ma ko waxee daaw rek tubarkàlla. daal sa sondeel yu xonk yu ndaw yooyu. Euh, tubarkàlla. ay bagages yu bëri yooyu def ci yooyu def ci kër gi ko waaw na la jaral ci salle bi ci néeg bi sa salle. Uh-huh. décorer sa couloir. décorer sa néeg tubarkàlla waaye sa wàll bopp nga décorer sa bopp. ah nooy décorer sa bopp. jeeg bi décoré boppam tubarkalla da ngay nas ay fer nas fer yi nga xamante ne da koy jëlal bés tubarkalla daal di def sa per bu rouge ak bu ah, noir dafa am bisu bisu bisu nas. ah mais bien sûr mais jeeg gi du ñëpp mën a nas mbay ah <laughs> du ñëpp mën a nas de. du ñëpp a a nas xanaa ñu nas lu. waaw naslu waaw naslu wala ñu ñëw ci man ah? nag. naslu wu leen <laughs> naslu xanaa. <laughs> Hmm? nas ba mu baax. tubarkalla uh-huh. pourquoi pas nga def ci 30 du fekkee yu sew la bu fekkee ni yu xaw a digg doomu tuuti rek nga daal di def sa 20. Ah. bu fekkee ni tubaarkàlla mais am na yu dijj yoo xamante ni benn bi rek day diis. waaw yooyu mooy feru rëgëj yooyu mooy feru rëgëj ah moom la law bay doon takk mooy am marsage lem. Ah. Euh, te yooyu li tax man ma taamu ko son bi dafa baax. dafay résonné voilà acoustique la. Ah. te yooyu yëpp savoir provoquer nit da ngay xam nooy provoquer. jigéen dangay xam ni ngay provoqué. kon bagage yi dafa am son acoustique dafa am son bu ah, baax ak son bu baaxul. ah waaw te kese xam nga tey di tubarkàlla doo jëlee sa euh, becco dentelle bu pël te bari pex bari pax bu leen ree. <laughs> becco dentelle. heureusement que ah, xale xale yi tëdd nañu. 22 euh, heures passé na voilà donc euh, mën nañoo wax mën nañoo wax yi baax ci néegu sëy yi mhm. xam nga duñu sori sax da dañuy junj rek beccu danteel bu bëri bën bën voilà voilà dañuy dañuy junj rek parce que amaana kilifa yeeg ñuy seetaan mais comme que dañuy jàngale te tubarkàlla la suñu xel a comporté woo guddik tey laa lay wax mhm. dinaa mhm. ma déglu ma wax la dëgg da ngay wut sa beccu danteel toujours fekk nga nekk teint clair da koy def tubarkàlla bu noir mu ah. doon danteel bu bari pax nga daal di def euh, diigal sa juróom benn feri rëgëj mooy mooy bu dijj bi ñu jaay dijj bi am massage lem ferlaw bi mais da nga koy nëbal ba pare dégg naa bañ a nëbal dañ koy xooj da koy nëbal xooj ko tubarkaal ba soo ko takkee dëkk bi wàcc bâtiment yi daanu ni ma koy waxee nga daal di jéggat waaw mais xooj amul fan xooj dangay ngay xooj pour toujours ok parce que tubarkaal la fer boobu soo ko takkee su la neexee sax bañ taal cuuraay hmm. ndax xet ga muy àndal ba pare euh, euh, euh, son bi laay wax si son bi laa doon wax ak yow hmm. war nga doo jéggatee da ngay jéggat ni kanaar gu dëgg na tëri ah jéeg warta waaxu ah <laughs> jéeg bul ma reetaan man man damay déglu rek ah Pape man ci jonge rek la ñuy wax eh. daal di jéggat tubarkàlla mel ni ku yor ay tàngal mu tuuru nga sëgg for ko da koy def exprès tuur ko da stratégie la loolu ah mais pourquoi mais Pape mayel ngoo de mu yeggali parce que jéeg ji fi ñu toll nii yaakaar naa ne jox nañ ko nopp bu baax bi concentré wu nañ bu baax Pape ba pare li ma leen conseillé woon ndeysaan dama ne jéeg bi gën a def erreur mooy jéeg boo dugg néegam te fekkoo fa tama tama gone tama <laughs> tam da defe ne yaat ma caam rek ay tëgg tama ak ma saa dëkk bi toj na di ah <laughs> yow tam yi ngi tëgg tama <laughs> te kat tey góor ñaa ngi mel ni ñuy seetaan match football <laughs> xaaju guddi xale yëpp nelaw. waaw yokkal ma télé bi laa wax. <laughs> ni ngoonee wax am na njëriñ. waaw moom mais bon moom moom ba tey mi ngi ci yoonu. Ah, jonge yow rek la ñuy déglu fi mu xam nga jonge du dara lu dul comédie la. benn genre comédie bi yooyu joué. yow ak sa partenaire. c'est jigéen bu rëy du ko def. Mm. soo complexé doo ko def. Mm-hmm. te wax dëgg yàlla nit man damay conseillé toujours du jeeg soo duggee sa biir néeg vraiment war ngaa nekk indo. di fecc jël tama grand doomu xool damay ree bay tourné bàyyi rek ma wax. Ah. xaaral ma jël sama kanam. bay tourné man kay jot naa jot naa sama kanam fële. àggalil àggalil. waaw de nga. Ah. tama yooyu yëpp ay affaire yu joŋe la. kaf la ah. mm-hmm. parce que damay wax de fois naan jeeg da ngay kidnappé sa jëkkër. kidnappé woo ko pour dóor ko. nappe woo ko pour xas ko mais nappe pour di kaf ak moom. Mm-hmm. di reetaan ak moom am na ci mm-hmm. góor ñi nga xam ni Pape Cheikh. dañuy wàcc mais duñu toog seen kër. parce que amuñu fa lu leen neex. Mhm. mais bu fekkee ne dalaa leer ni soo demee. Mhm. sa añ ñëw temps. Mhm. sa reer ñëw temps. ñu faw ak yow kaf yow. sa jëkkër du ñëwee nga recevoir ko accolade ko te jéggi danu bàyyi accolade. waaw dëgg la jëkkër ju wàcc. xamoo ndax fa muy liggéey dañ ko fa doon dóor waxin la. xamoo lu muy liggéey xëy fajar dem. su ñëwee déjà yow war nga ko mën a accueillir accueil bi nga xamante ne dina tax mu wàcc ak lépp lu mu mënti yendoo. ci lu rek. na ko fàtte. Mm-hmm. comprendre nga may expliquer. Mm-hmm. may ko ndox mu naan. da ngay daaneel coonoom summi li mu sol téye ko yooyu déjà yow yaa ngi koy ba nga xamante ne lu mu yend woon ci nakar mm-hmm. da koy daal di da koy daal di réer nga daal di koy defara reer euh, añam avant moo añ nga dugal ko ci douche bi sang ko am na mu demee nga dugg sangoog moom mbéte bébé mais bien sûr ci ko bébé la di ay bébé la ñu ah kii de moo ko taasu dëgg la de ñu góor ñi ay bébé lañu waaw waxoon nga ko Fatou Guewel à l'époque dëgg la de ak Viviane c'est vrai fàtte xaju fi sax lañu waay waay ayoo nene dëgg daal di indi confirmation rek boo ko sangee ba pare tubaarkàlla nga sang ko wala ngeen sangandoo yooyu yëpp am benn problème dañuy waxtaan Sénégal na danoo gaaw réeli waaw waaye dañu bàyyi rek non mais on est en train de discuter guddi la Saint-Valentin la mag ñi ñooy seetaan donc defe naa euh, euh, mën euh, yu baax voilà maanaam maa ngi dugg rek euh, ci jonge ak euh, bëgg sa jëkkër mais aussi di tàmmal sa jëkkër li nga xamante ni euh, su wàccee du xalaat fenn fudul këram. Hmm. am na ci góor ñi nga xam ne duñ dem restaurant mënoo leen jël benn heure añ fenn lu dul seen kër rek lañ jëm. parce que li ñu bëgg seen kër la nekk. Hmm. Hmm. dinañ leen soulager dinañ waxtaan ak ñoom wàcce leen te li bëgg fan koy fekk. li nalaw li nalaw ci moom këram la yeewoo. mais am na ci góor ñi nga xamante ni tey Pape lu leer laa lay wax suñu wàccee dañuy tambaambalu ci restaurant yi. parce que gaynde leen xaar seen euh, këram gaynde moo lay xaar sa kër mm-hmm. du la may jàmm du la may salaam respecté wu la sa añ ci ci kaw su la koy teg mm-hmm. amul ay ay ay vaisselle yu baax mm-hmm. jéemu ko sox wut donc góor ñi ñu ngi dund loolu na ñuy waxtaane yooyu loolu c'est important nañ koy waxtaane waaye jéeg bi nga xam ne tubaarkaal dafa mën boppam mel ni maam Njaay sama jéeg boobu mbay gay li tam ma fan ko bëggoon naa ñu yàgg bokk plateau dama ko bëgg ndax day sagal jabaram fu mu toog plateau bu mu toog chain bu mu yéeg soo waxee mu ne maam Ndiaye loolu sagu jigéen la mhm. jigéen dafa bari titre jigéen dafay bëgg ku ko yëkkati mhm. yal na yàlla guddal sa fan ma waxaat la loolu kontaan naa trop fay ci loolu mhm. waaye macha allah daal li ma la ci mën a wax daal pour ñu junj rek ba ñu xóotal ndax xam naa sax su doon feneen ma xóotal waaye fii comme que àdduna yëpp ak may seetaan naa junj rek <laughs> ay tubaarkala daal <laughs> mooy loolu daal fu ko fu ko maam tee waaw léegi euh, bëjee loolu lañ lay fan la la mam téye après ah. tant d'années de mariage plateau boo toog bàkk ko oui comme li comme li Ngone wax léegi wax léegi euh, moom dama koy euh, naan ko chapeau mm-hmm. ci li mu wax mm-hmm. parce que jigéen la xam nga jigéen ñi sax léeg-léeg du ñuy bëgg di wax ci seen moroomu jigéen mm-hmm. maanaam màggal ko mais yàlla dafa dafa sopp loolu. Mhm. koo màggal rek. Mhm. suñu borom màggal la. waaw mhm. xam nga nag xam nga. man ak moom ñu ngi sëy en 1984. 84. 84 waaw. xale yi xale yi ñii un an la ñu am. waaw <laughs> ñi juddooguñu. ñu ngi xamante en 1974. macha allah defe naa loolu est-ce que sax euh, kenn du ko wane. am na lu ñu ci jot waxtaan. man ak moom démb. dinañ ci xo dinañ ci am luñ ci luñ ci wane tuuti. waaw ah. et vraiment. Mhm. parce que Pape xam nga man euh, dama yàgg bëgg jom. Mhm. bëgg teel a nekk responsable. Mhm. ca jamono yooyu amoon na yu xew yu daan xew. mais bëgguma ci woon bokk. boobu Super Étoile ñu ngi ko formé en 1981. ñu dawal quatre ans. Mm-hmm. waaye defe naa ñetti ak mm-hmm. rek ma ni damay takk. Oh. parce que boobu succès bi mi ngi commencé ñëw. te bëgguma taañaañal. dëgg la rek ma ni damay takk sam papa bi ma ñëwee. teel a wu waaw ne ko damay takk jabar. Mm-hmm. mi ngi ci dëgg maa ngi ci fen yàlla na ko yàlla yërëm. te yéexee ñu xarit ko àjjana dafa jóg. ne ma ah ma ni ko waaw. mu ne ma lu tax nga bëgg takk jabar nii ci âge bi mhm. te yaa ngi sa buntu ndaw ma ni ko euh, dama bëgg teel a rangé wu en 1984 mhm. ndeysaan mhm. boobu nag mi ngi jekk nag nekk jeune fille et buy dox di tëb buy dox di tëb waaw kon jéggat bi ma doon wax dafa daal di ñëw waaw buy dox waaw boo ko rek saan gis muy dox day tëb eh, Eh, moom moo taxoon nag ensemble jiin neex ma ci jigéen. ensemble jiin. <laughs> waaw mooy yi ñu xewal léegi. maam yàgg na ci waaw waaw boobu magam luy Ndiaye. nga xam ni dafa gën a saxal sama seeg maam Ndiaye. mi mhm. euh, en France. Mhm. daan ko ko yónnee. Mhm. may saluer Awa Yome de passage. ndax nag moom laa daan seeti. Uh-huh. mais yow daal ci li mu daan sañse à l'époque ensemble jiin bay la ci oh, gënoon neex. waaw uh-huh. et eh, uh-huh. nag. Euh, ñu daal di sëy et eh, bi ñu sëyee ba léegi alhamdulilahi rabbi alamina mm-hmm. ah mm-hmm. Eh, am nga ay njaboot mm-hmm. ba gis suñu ay sët ah. mu joŋee nag mais damay wax ni jigéen ñi ñoo gën a joŋe góor ñi ok boo am na ay góor yu joŋe aussi. am na góor yu joŋe joŋe joŋe weesuwul li nga nekkee. waaw waaw seen boo taxaw maam Ndiaye. mais xam nga fan laa commencé a lii. maam yaa mën lii maam yaa mën lii. Ah. xam nga fan laa commencé. <laughs> Mbaye Dieye maam Ndiaye bon. xëy na sax da ko fàtte ca Sorano. loolu yàgg boobu takk gu ma ko. waaw papaam bi muy seetaat télé bi ba dégg mbay jéy maam Ndiaye bon dafa tëb. jar na tëb kay. morso bu ma bun daan kii maa ngi naan bon bon. dem ba mu yàgg rek ma am inspiration rek daal ne mbay jéy maam Ndiaye bon boobu c'était pour signer. Eh! sa engagement. sama engagement. <laughs> waaw nu may ma ko. ah eh! mu sëy si. ah <laughs> Ah oui. ah oui ah oui alors euh, il y aura beaucoup de déclarations d'amour tey euh, ci euh, euh, télévision Futur Média on vous offre beaucoup de cadeaux yéen ñi nga xamante ni yéenay seetaan on a des week-ends euh, pour deux yoo xamante ni bëgg nañ leen ko baaxee on vous montre suñu ay numéro de téléphone bu ca kanamee tuuti invité yi itam grâce ak suñu ay partenaires euh, dinañu am ay cadeaux yoo xamante ni ñoom la ñu ko préparé mënuñu leen bañ a parce que ñoom ñoo jàpp ci combat tey ci guddi gi kii ay entre autres on a Kër Aram jàppale euh, Palm Beach euh, dinañ leen fa may ay week-end ànd nañu itam ak euh, Sénico Darou Salam traiteur ak Abibka nekk Saint-Louis faites un tour là-bas bu fekkee yéen ñuy seetaan depuis Saint-Louis maison des fruits Anita Sarr elle a offert déjà un bouquet de fruits bu ñuy wane bu ca kaname donc bu de bëgg ngeen ñu may leen ci week yi par exemple n'hésitez surtout pas woote leen ngeen jot ñu en direct ak ngeen ñàkk ñoo jot bu ngeen commencé ba composé suñu numéro de téléphone di ngeen am euh, euh, ay euh, cadeau yoo xamante ni dafay màggal Saint-Valentin bi y' a pas longtemps qu'il y a di y' a juste quelques jours j' étais envoyé une belle chanson d'amour way boobu noonu defe naa dégg nga ko Carlou di moo ko way mu génne woon ko spécialement pour Saint-Valentin bi Carlou keroog bi ñuy waxtaan man ak yow bi ñu wéetee li ma wax mooy Carlou dafa mën a way mbëggeel Pape Cheikh ba nga ma ko yónnee ba ma ko dégloo fi ma sama xol féex mhm. euh, Pape Carlou bu woyee mbëggeel mhm. euh, mën naa ne mag ñi sax comme lañ doon wax sànq buñ ko déggee seen yaram day daw ndax lam ciy wax ku ci ne da ciy gis sa bopp mhm. alors Pape je pense que dañuy recevoir Carlou D bëgg li ma yëg bëgg ma ko yónnee ñii duñu seetaan yëg ko te du boobu rek li mu woy ci ay woyu mbëggeel bëri Carlou di Ñaaña la ñuy déglu chérie bëgg nga ma mama chérie bëgg naa la fonk naa la chérie I love you mais venez nous rejoindre kaay leen kaay leen kaay leen Eh, nan lañ koy waxee ah. naa yaa aniwula venez mooy nan ah venez venez ah. <laughs> Djiby Dramé ak maman chérie kontaan naa bienvenue eh, i ka kene kaamu fo eh, <laughs> maman ça va fe <laughs> bienvenue on est très content ñu am leen tey ci euh, euh, plateau bi euh, asseyez-vous où vous voulez ah toog fu leen neex neex jibi euh, euh, yow ak euh, mama da ngeen bëgg a jàkkaarloo waaw quand même exceptionnellement parce que vous êtes toujours ensemble ah yéen ñaar yéen nekk tout le temps donc tey mun ngeen toog jàkkaarloo ça va naka naka Saint-Valentin bi je pense que c'est la énième fois ñuy def émission Saint-Valentin et yàlla nañu koy def ay at yu bëri tey tey tey maman lan nga yëg balaa may wax ak sa ak sa jëkkër bi te maman kontaan naa trop trop dama kontaan ne mm-hmm. te ci jour Saint-Valentin bi maa ngi nuyu waa TFM yëpp mm-hmm. di nuyu suñu fans si ak suñu waajur yi mm-hmm. tey dama kontaan trop trop waaw ah oui ah ah léegi dafa dégg wolof ah oui ah oui li mu doon jóge Malia ah. ah oui ah oui ah loolu dañuy ñëw comme ci li ñuy waxoon sànq rek mbëggeel amul frontière dakaar ba ma ko day mujj nekk benn. ndax ni seen mbëggeel dëggoo. Mhm. ni seen mbëggeel sincère yi. allah mhm. alhamdulilah sant yàlla. Mhm. jul seydna Muhammad sallallahu alayhi wa di wax na tey euh, jour mbëggeel la. mais lu may wax rek euh, souvent si sama géew. suñu wooyee Djiby Dramé ma chérie man chaque jour damay Saint-Valentin. dëgg la de man toujours Saint-Valentin. balaa may ñax si Saint-Valentin bi damay nuyu sama jigéen euh, Ngoné. ku baax sama jigéen la. di nuyu sama grand Mbaye Faye grand magistrat ku baax ku ñàkk ki ñaan ku fonk nawlem ku bëgg nawlem boo ah xam ne du tànkam lu kenn man dama ko ne Mbaye euh, Faye suñu la séenee wala war lañ la xam dañu war xool référence yow ndax yow doo tànkam lu kenn yow xale bu nekk artiste bu ndaw léegi su xewlee léegi léegi rek quartier am sax suñu woowee Mbaye fay day ñëw teew xaw na ñagas et eh, léegi nag da ngay daal di juboo da ngay jég eh, may ma ndox yow. Ah, waaw. <laughs> waaw ah foofu day jóg. parce que bu jógul rek def erreur. xale yaa ngi toog te am nan jabar ci biir kër gi. jottali ma ba eh suma basin bi nekkoon foofu da ko ñaw wala ñawuloo ko ah mu daal ne ma ca tayir ba. nga jàng ne waaw away ah mais a yor ah naa ci beneen sax away <laughs> ah maa ngi ak foofu jubóo bi dafay daal di neex tàppaasante bi léegi kii loolu moo extra dafa ruus dafa bëri kersa sànq la ma envoyé message bi ma demee taxaw fële bi élément bi jàll mu ne ma laajal jël ma laajal ma grand mbay jay néegam lu fa ne cool mbëg mbëg wala tumb ni lépp nga fa lépp nee naa la man dama jógee man bu soxna si demee salon sax ma watu ji parce que da ngaa mën a tëgg tama bu muy dem waaw ah si. ah oui. si. ah damay tëgg ah, ah, waaw te boo moytoo sax man rabin tatatel la. nga ni ah, eh! si. sama papa moom tarangañ la gën a mën tarangañ tarangañ man xam nga doxuma la yàlla ma yàlla non ko yóbbuñu foofu noo nooy demee foofu da nga naan urat gis urat gis akat gis urat papa tam daa mën de urat saakit urat saakit urat saakit ki da da urat saakit da da ki ki tur ki tur da capax capax cagi gi gi dura gi dura gi dura gi taas mbax gi gi sa mbax gi gi ak lu bii Ngoné Ngoné Ndiaye Ngoné Ndiaye Ngoné Ndiaye Ngoné euh, Ndiaye léegi yaa may wax yow jigéen nan la war a jubóowee bu ah. xuloo amee nu jigéen di jubóowee am soor yi lay wax baal ma wala day cokkaas nooy jubóowee waaw pap euh, xuloo dafa war am ci sëy nga jékki-jékki tàppaas mhm. li ma lay conseillé mooy bu xuloo bi yàgg mhm. xuloo pour xuloo pour quinze minutes xaw a ñàkkante ndax neexal ba damay faral di wax ni ku ñam jëw xaw ma ku ñam jëw xam ne jàkkaarloo daak xaw ma nu ko olof di waxee noonu jékki-jékki tubarkàlla xulóog sa jëkkër bajjantu ci natt sa bopp la bokk bajjantu mooy nga reewantu noonu def ay manière waa xaw a daal di rasu toogee na le mel ni ku gedd créer caprice jigéen da ngay am tuuti caprice am dëggindaat comme xale buy xaru am cas waaw yow kii bàyyi ma rekk ci sama sago ma yeggale ci agressif <laughs> d'accord jigéen dangay am dëggi ndaat mm-hmm. cas cas way jékki-jékki créer tuuti attrouvement c'est normal toujours duy neex du neex déedéet di jékki-jékki rasu toogee nële ñu lay neexal di la dab dabal ci ngay xame yow yaay kan jigéen da ngay natt sa bopp. Mm. du toujours mu neex. Mm. farfor lu dara lu dara jékki-jékki xool li nga xamante ne tubarkalla mooy mooy nelaw ci salaam. nga yee ko fexe ko yee. <laughs> barke Serigne Touba Mbacke loolu lépp ci jonge mm-hmm. la. xuloo dafa neex ci sëy. Mm-hmm. xuloo dafa neex soo xamoon valeur jubóo. Mm. heure bu nekk di nga xuloo mais bu ci yàgg man bëgguma tongoo. non non tongoo baaxul. entre les deux jamono warul am tongoo. Mm-hmm. communication daf ci war a am. Mm-hmm. waaw mm-hmm. des nga dem ci biir kër. fekk fa couple bi nga xam ne duñu sax wax. déedéet. loolu baaxul. dëgg la ñëw ma léebal la. wut dunku naat mooy dunku naat euh, pentaat moo am tomb tomb yi noonu dañuy waxtaan. ñuy waxtaan ma dënd ak yow comprendre nga. léeg-léeg ma jékki-jékki xam nga yooyu yëpp ci communication. góor waaw tarle cukk nga ree ba ma def noonu doyadi. dëgg doyadi boobu du question. Eh, manqué wala dara mi yaa ngi créé benn genre kaf ak ree. sa jëkkër da léeb ak moom. su ma la xoolee tey ji war naa xam. ndax kontaan nga wala kontaanoo. jigéen da ngay liir sa xolu jëkkër. Mm-hmm. tey jii salaam damay sëy danga kontaan war naa ko xam. Mm-hmm. da mer war naa ko xam. Mm-hmm. mais bu ma rëy rëy bu toll ci ne di xaar yow nga montré ma ko. man maa ko war a recherché. ci yow dëgg gis ko. naat boobu tubaarkaal la. Mm. <laughs> daw <laughs> <laughs> bon léegi léegi léegi bàyyi ma bàyyi la papa nga dund sa émotion on reste toujours dans cette mouvance de Djibo on reste dans cette mouvance de Djibo euh, sànq daf ma daf ma tooñ kan ci ma yónnee ko message mon amour oui ma ne sorry mu ne ma I'm sorry ma sorry ma daal di ko yónnee benn woy boo xamante ne ku ko déglu rek et Pape Cheikh dama ko bëgg a partager ak sama télé euh, suñu téléspectateurs yi ndax euh, ba mu ko dégloo dafa ñëw fekk ma ma toog mu kottu ma. te loolu dafa neex. Mm-hmm. xanaa du jiboo nañu. Mm-hmm. Pape Cheikh ñu accueillir ñi nga xamante ne ñooy waa Akhlou Brick. Mm-hmm. ñu partager ak ñoom son bi nga xamante ne moo tax sànq nga fekk ma ma toog nga kottu. ñu juboo ñu juboo vrai que c'est une belle chanson euh, Akhlou Brick euh, euh, Paradise kontaan nañu merci pour woy bi gis ngeen carton bi woy bi am loolu mooy wone ni mbëggeel rek wóor en fait c'est-à-dire que nga que nga consomme hip hop ou pas woy bi actuellement mooy mooy hymne Saint-Valentin bi te ñun kontaan nañ ci ngeen tàcc bu baax encore waa Akhlou Brick Paradise soir bi jeexagul dañ leen di bàyyi ngeen dem ci buffet bi parce que c'est déjà ouvert euh, ñun noonu la ñuy célébrer euh, Saint-Valentin euh, ci télévision Futur Média on vous offre en même temps deux coffrets caddie Sénico moo ko may je sais pas ana ana ana ana seen ay Valentine <laughs> ils font genre dañoo rus quoi genre am na waaw dafa mi moo xam ne li may bëgg a wax quoi. dafa kii quoi cest a dire que ñun. dafa compliqué quoi dafa xaw a particulier ba mu ëpp te fête Saint-Valentin ni ñu koy defee comme on vient de le dire tantôt. Mm-hmm. que ni c'est général. Mm-hmm. parce que jour de l'amour la. ok micro bi waaw. Mm-hmm. jour de l'amour la. te te te mbëggeel boobu. Mm. da nga koy partager ak ki nga xamante ni. mooy ki nga xamante ni d'abord moo la sàkk que ça soit Dieu. ak ki nga xamante ni si moom nga jokk muy sallallahu alayhi wa sallam mm. idem que ki nga xamante ni moom mooy sa bunt ci àdduna muy sa yaay ak sa papa plus ñi nga xamante ni mooy say xarit ak say kóllëre mm-hmm. ngay door a am sa sa sa bébé d'amour je peux dire parce que mbëggeel damay wax ne a chaque fois dafa large te nit moom mm-hmm. boo bëggee rek faw nga amal ok li ngay amal mooy lu positif lay doon parce que dañ naan mbëggeel moom yàlla moo ko njëkk def ndax mm-hmm. moom ba mu bëggee rek moom la amal quoi voilà donc kon àdduna lépp rek. Mhm. yàlla mi ngi koy def ci rotation mi ngi koy def ci mbëggeel. Mhm. kon loolu c'est général. Mhm. moo tax suñu joxee ñenn ñi particulier dañuy bañ ñenn ñi xaw a mer. moo tax ñu généraliser ko à travers nos fans. à travers suñu papa yeeg suñu yaay yi idem que suñu sëriñ yi ñuy jokk. ñu ngi leen di wax ni ñu ngi gën a fësal suñu mahabba ci ñoom. macha allah merci en tout cas ñu bàyyi leen ngeen dem euh, mën ngeen ñëw récupérer cadeau yi aussi euh, voilà venez Euh, mu ngoog Kadi. Kadi waaw mu ngoog merci beaucoup. Mm. Ah. Ah. waaw waaw ñaar ku nekk na jël benn ah oui <laughs> ñaar ngeen en fait voilà merci mën ngeen dem ci euh, buffet bi parce que tey dañuy célébrer euh, je rappelle encore Saint-Valentin beaucoup de partenaires yoo xamante ne ñoom ñoo ñuy gunge kii tey ci guddi gi. voilà Pape Cheikh ñu ngi ànd ak ki nga xamante mooy Kër Aram jàppale ñu ngi ànd ak également ak hôtel étoiles boobu di. Euh, Palm Beach ànd nañ également ak ko pañe yu yanji yi ngeen gis euh, Sénico euh, moo leen ko jagleel guddi gi. Mhm. alors ànd nañ également ak Darou Salam traiteur Pape Cheikh Ka fële ca Saint-Louis. Mhm. li nga xam ne mooy la maison des fruits Pape Cheikh am naa pañe bu yanji fi boo xamante ne. pañe de fruits la la ah maison des fruits. Ah moo leen ko jagleel ah yéen a ko moom yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan. Mhm. jël leen seen téléphone ngeen woote ngeen jot ñu ñàkk ñu jot comme Pape ni mu ko waxee léegi. Euh, bu ngeen duggee dinañ jël seen numéro ngeen mën a bénéficier wu ah ci lii nga xamante ne mën ngeen ko jox seen yaay ah wax nañ ko léegi mën ngeen ko jox également euh, seen chéri yi ah euh, pour pour bégal ko voilà merci kii ah defe naa loolu am na solo pour surtout suñu xarit donc ñu ngi leen di ñaanal encore soirée Saint-Valentin bu neex sànq mbay Dieye wax na ko Ngone Ndiaye wax na ko mbëggeel defe naa amul fii laa bokk fële laa bokk koo mënti gis ba bëgg ko doo sóor waaso bi lu leer nga wax pap mbëggeel xoolu xeet mm-hmm. xoolul waaso mm-hmm. xoolu dara soo euh, xasee bëgg mm-hmm. da ngay gumba tëxlu des fois nga gis jullit sëy sax ak chrétien mu am coow mais yow mu nga bëgg soo xasee bëgg nit bëgg nga ko dégg naa ko dafa mel ni ci euh, Mbaye Guèye ci benn morceau mu naan soo demee ca armeel ya doo gis bàmmeelu géex ak bàmmeelu géwél nit ñi dañoo war a muus nag seen xel dafa war a ñëwaat nag parce que leen li nga xamante ne diire na ay ati at te ba tey tey la xale yi gën a bëggante ak ki nga xam ni du seen nawle tey leen gën a bëggante ki nga xam ne bokkuñu ñu religion da nga leen a war a bàyyi ñu bëggante mbëggeel du lu ñuy jënd ci marché ba du lu ñuy saam looy yëg la yëg yëg la te dafa fort ci doomu aadama fu mu la fekk tongal la mhm. fu mu la fekk maaj loo la mhm. li may conseillé daal parents yi mhm. ak famille surtout nanu bàyyi ñi bëggante ñu dund seen mbëggeel mbëggeel da koy dund asalaam ah, effectivement <laughs> parce que parce que papa xam na ni kuy bëgg du tàggoo mais kuy bëgg du tàggoo effectivement problème boobu ngeen wax noonu ñun yàgg nañ ko dund ñun ñi nga xam ne ñoo xam ci aar am na ñoo xam ni seen seen bëgguñu seen doom di génn un artiste man mii sama waajur wu góor mere na may at le fait ma nekk mhm. artiste mais <laughs> effectivement ku nekk ak euh, fi nga xam ne moom la yàlla yóbbu sa destin mhm. euh, da ngay dugg ci kër ñu ne la pourquoi ngay ànd kii géwal la mhm. ci laa wooyoon yaa ma saf ma saf la mbir mi safante la donc musu dund amul géwal mais toujours ah toujours toujours bon ku nekk ak sa réplique nag. Mhm. man ba ma ko defee ma gis sama bopp. dëgg la am lu ma def. Mhm. am lu ma def. waaw waaw dëgg la euh, c'est que da ngeen laal benn point bu sensible. Mhm, muy côté boobu. kii ñeeño la. kii tukulóor la. kii géer la. bon lan mooy géer. déjà wax naa ko ci benn morceau dëgg la. ñun géwël yi dañu am ay mbokki géer man boo may tagg danga nga naan monsieur si Awa Diagne Baye Mboori Awa Diagne bilaa ni ku ma ñeme ku ma ñeme Baba Diagne ay géer yoo xam boo leen di tagg da leen naan monsieur si Awa Diagne Baye Mboori Awa Diagne bilaa ni ku ma ñeme ku ma ñeme Baba Diagne xew yaay njekk njaay ba géwël Ndakaaru eh mbëggeel loolu dictature la c'est important ba mhm. dictature la yi nga bon bonee dictature dañuy définir sax ci nooteel ci euh, comme yaxewoon xewoon ca yenn dëkk yi mhm. yaa ngi dégg non dictature la mhm. dara gënul metti xool nit ki mu am ku mu bëgganteel nga xeeb askanam bañ doo ko may sa doom dafa dafa sensible. et c'est vice versa ah yenn saa yi nga dem ci koo xamante ni euh, ñeeño la wala mu nekk géwél mu ne moom ku géer du takk doomam. noonu nga ko mënee am tam ci géer ci c'est c'est dafa vice versa. dafa vice versa. dama ci am ay jeunes cadres. waaw ah, te dafa metti hmm. dafa metti loolu cadre yu jàng ba am seeni diplôme. Hmm. mais attends euh, ndombal tànk gën na rëy ministre wala dara. ah oui. teru sama yeggali. yenn junj nga. junj doy na boroom xel. mës naa fi dégg. ku ne. kenn ci ay mbokk politicien ne ko réew mi géwal du ko jiite. yooyu dafa xaw a ëpp ci ay wax. dama ko nag layoo. dafa xaw ëpp ci ay wax. waaw man dafa am wax yu ëpp. Hmm. xam nga dictature weesuwul ki yaa bëgg. tii nga ni ko kii bokku leen xeet du sa nawle nawle weesuwul Seydina Muhammad nawle weesuwul kenn rek moo ñu sàkk mm-hmm. Mm-hmm. muy yàlla sama morceau boobu wax naa ko fi mm-hmm. jëlal téléphone bi composé numéro am xoolal ma fu mu ne fekk xale ba na ma ko bindee dafa seeti ki mu bëgg waaye waajur yi nee nan duñ ko maye. armée lu fu mu am non léegi. Mhm. dafa am ñeeñ. Mhm. am géwal. Mhm. am géer am tukulóor am séeréer. am maabo am wuude. donc ci yooyu ma lim xanaa set set armeel. waaw réew mi set armeel am na fi. déedéet ñaata armeel ñoo fi am. waxal ci micro bi waaw. Ah, benn. waaw est léegi bu ñuy denc nit ki bu ko sunu borom jëlee. est-ce que dañ naan feere ñuy suul géwal yi. fii la ñuy suul géer ñi fii la suul euh, maabo yi fii la ñuy suul benn rek am. doguma la doguma la mbay. ah doguma la ñoom sax danoo ba tey dañuy weddi yàlla. waaw yàlla da leen a wan kéemaan. Ah. batalo Joola. Hmm. bi ñuy rob nit ñi. waaw est-ce xam nañ jullit bi. Hmm. xam nañ chrétien bi hmm. xam nañ tubaab bi hmm. xam nañ géer bi xam nañ géwél bi hmm. yàlla toujours moo wan leen waaye ñoom duñu d'accord dëgg la mooy mooy li ma Penda Seck de love indépendance dafa baax ci ñaan ñu bëggante waaw mbëggeel dafa war a am indépendance en fait et puis Pape Cheikh amul couleur amul frontière frontière euh, Pape Cheikh amul amour mbëggeel du lu ñuy conditionné lu jege ci xol la di dem ci xol du lu ñuy conditionné. Mm-hmm. donc euh, euh, boo ko tegalee principe rek nekkatul mbëggeel. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. waaw mais léegi kaña lay faju kenn xamul. c'est important. kaña lay faju et man mënuma gëm ni danga ne danga nga gëm yàlla. gëm li ñu doon. chrétien bi gëm li mu gëm. Euh, jullit yi gëm li ñu gëm. mais ba léegi. mi ngi fi dox. man nag ah, boo may ëpp xam-xam. dama bëgg na nga euh, nga naka lañ koy waxatee nga convaincre ma. ci boobu. ci fi nga ko teg boobu day moom. diggante kii géer la. bokku leen xeet bokku leen euh, aada bokku leen kii. Mhm. kan rek moo ma mën a génneel aaya bi. borom xam-xam yaa ngi ci réew mi nag. Mm-hmm. ñu la ko génnelee rek mën nga ko gëm. ay taalibe lañu. Mm-hmm. mais kan moo may génneel rek aaya bi. Mm-hmm. aaya kii. jëw la war waaw kay aaya bi rek moom laa soxla. Eh. ma xool nag ndax dinañ ma ko tegal ci table ji. fonk naa trop borom xam-xam yi. waaye. day am loo xam ne boo koy wax dafa am fooy wéeru mm-hmm. du dañ de mm-hmm. fi ma wéeru mm-hmm. ah non kenn mënu ko génne aaya yow day yéen ñaar waru leen sëy parce kii tëgg la kii wuulee la boobu aaya du te mbëggeel gi mbëggeel gi bu amee doole ñaare bu ñu leen bañee mayee da nga ciy gis euh, ñi bëggante fippu wala dem ba def naka su dul noonu waaw euh, euh, xam naa ci koo xamante ni dafa dafa dafa dem ba génn seen famille dem topp ku góor ki waaw wala àndandoog moom dem wuti ku leen mayee ñu am cay doom sëy waaw yooyu yëpp gis nañ ko ci ci dëkk bi bëri na ci ay diggante yoo xamante ni li ko yàq yi fi judd la fii la bokk bokkul fii moom lu tubaab bi tuddee caste liggéey daaw nag. am na de. yaa ngi toog. ak na nii. alhamdulilah. ni jaay. tey sawaroo dara de. moom mooy saware. waaye sant yàlla xam nga suñu usine bi rek xam nga dégg naa tubaab bi sax da ko mujj jox da ko mujj jaay ay ñee. xam nga ku daan tàmm liggéey tàmm njaboot tàmm loolu te xam nga man damaa tàmm yooyu. waaye sant yàlla nijaay ah, waaw moom koy sant rek. ginnaaw bi nga amee ki mel ni kase. waaw ah yow koy nijaay nag. waaw moom nag moom day jàmbaar moom. moom moom moom na ko yàlla fay rek. fàttewul dara nag. Mhm. ndax dañuy bëgg a yàgg nag. am naa ñaanal lool jëf ju baax nag ku ko def rek yàlla. entrée. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. góor naa la wàll. la ñuy wax naan xanaa nit ñi nag léegi. alhamdulilah léegi laa lay waxtaanee. dëgg la dëgg la laaj baax na soxna si léegi la ñuy. dëgg la dëgg la maa ngi lay ziar bu baax. def. alhamdulilah gis nga sant yàlla bu baax alhamdulilah ana sama gaay sa gaay nga fa salaat rek papa El Hadj Daouda papa El Hadj Daouda saa su ne ngir njaboot googu sax nag El Hadj hmm. moo ma yëkkati woon bëggoon ñoo am nañ si waxtaane hmm. muy mbirum Ousmane hmm. waaw loolu daal laa bëggoon ñu waxtaan ak moom nekkoon samay tànk xam naa man de xaw ma ne woon xale yi dëgg dëgg dañuy bëggante nag waaw ah, maa ngi koy door a yëg nii de wax dëgg yàlla xam nga ko yi <laughs> kilifa laa ajjuma ji nii seen bu ñu julee takkusaan bu ñu ci jàkk ji daañ ko def ah, loolu moom ah, ah xam naa day yàgg ji hmm. noonu la ko bëggee léegi nag ah xanaa damay dellu kër ga rek ah, fexe rek ñu ko war a yëg ko ah kay alaaji yitte xaw a këfin bàyyil ma ñëw dellu kër ga rek eh déet déet déet wallaay jégal nañ jégal nañ déedéet ah, déedéet jégal naa la ko alaaji waaye toog nga rek alaaji daaw instant yi su ma xalaatee sama papa mi ngi dem secteur bi léegi ma ñaanal soxna instant yi nii damay free kontaan libéré wu quoi mais ñoom dinañ am lu leen bett de comment ça parce que crois qu'on est des hommes alors qu'on est Valentin et Valentine. Un plaisir de l'amour. mais ñoom. sa parent bu ñu bañee nag bu ñu bañee may jabar nag. yow sa dara leerul on dirait que da ngaa bëgg daw génn. daw génn. Mhm. jamais. mais je t'aime plus que tout le monde. li ah. nga jàpp xam nga ko. àjjuma ji daa jege. jege waaye ni jaay xam nga ki fi jóge lan. kookan la kii ñeeño la ñu géer lañ. faatu nga ni la. kase mii ñeeño la. waaw ñeeño da dul julli. pire. ñeneen jënd da dul sukkar. pire. ah waaw léegi lu tax nga bëgg. léegi fa kanamu yàlla daa am leneen lu ñu fay séparé lu dul loolu. lépp benn la. waaye nag bëy day ànd ak bëy tef yi ànd ak tef. subhanallah. waaw la yi daan bañ ba tey dama koy bañ ci sama kër gi. lenn nag moom. bëy boo nga teel koo xam yow mu xam nga ma bu baax yow xam nga ma yàgg nañu lool. kii askor gor la ab jullit nag ku baax la njabootam du bëgg sama njaboot te te sax da daa këbin sax ndax kon tey ji laa koy maye mu jeex lenn na xamal naa ko def ajjuma kenn du ci man dara waaw te mbirum waas yooyu nga waxoon ba diwoon loon ma liggéey bu ni mel maanaam amul fenn fu yàlla suñu borom bind ci alxuraan euh, nga wëlbatiku delluwaat fa suñu borom jaamu ji yàlla te tuubaat tey jégalu ci yitte yi nga amoon ngir taqale ñaar ñooñu nga xamante ni suñu borom dafa doxal bëggante. nga jom si gis ma fii mais naa ne bu ma fi ñëw ci nag bi sa yaay demee ba wax ni du may doomam dëgg mais fallait ma ñëw ma jotee sa message fallait ma ñëw à tout prix quoi qu'il en soit lu mu mënti jar rek su ma waxee lu ma da nga feebar mënu ma ko toogaalee noonu damay ñëw parce que man walla bëgg c'est toi ma vie. bu ma la mayul. nga ëmbal ma walla soit ma xaru ñaar yépp benn du si am nag benn du si am loolu soo ko defee suñu diine bu dul loolu te loolu bu amee moom mooy suñu parents yi non loolu c'est pas du idée yu baax. daaw da li ngeen di wax yépp muy sama nopp bi tey ji bu xaru daganu man mii maay xam. waaye nag xaru dafa dagganu maa ngi leen jéggalu yow daaw di jéggalu sa famille yépp soo demee waxtaan nag say waajur ngeen jàpp bis ñu may leen comme xaru dootu ci am te lépp lu war ci takk gi man dinaa ko def maa ngi lay jéggalu bu baax di jéggalu sa famille kenn nga fi man nii maa yeeyoo xam mbëggeelu caaxaan tax na na na na mbëggeelu jàmm ma neexul ba neexul mais liñ doon wax rek kay dëgg euh, mbëggeel moom dafa war a am love indépendance maa ngi ko sàccee euh, ci Mapenda sekk ñu ngi koy nuyu d'ailleurs ndax moom xam naa ne mu gisee daan dafa bëgg mbëggeel fa mu toog ma nga naan waaw lii ngeen di wax nii day may booy woyoon naa ko de. te boobu fooguñu woon sax ni mbëggeel na toll fii c'est vrai ah li ko li ko mën a yàq dafa bëri ni mu neexee noonu la mënee noonu la mënee yàqu euh, vite fait yenn saa yi nga bëggante ak nit euh, euh, tëdd nelaw gént ko ci anam yu neex waaye dangay ngay jékki rek gént gi yàqu naa la ko loolu loolu loolu. nga yow rek mer. ki nga jàkkaar loolu woy na ko. muy Titi moom moo ñu fekk si ci plateau bi ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax. tàccule Titi euh, ci soirée spéciale Saint-Valentin euh, ci euh, télévision Futur Média kontaan nañu ci sa teewaay nga fekk si say xarit Salam Ngone Ndiaye man ak Kia fekk si itam sa mag Mbaye Dieye Faye saint moom sa sa la. <laughs> kontaan nañu Titi émission bi. ginnaaw bi ma sant yàlla nag. ñu mhm. ci yonent bi sant sama ñaari way wajur. Mhm. Ah, di nuyu nag sama fans yëpp bàyyi ma kenn. ñi mhm. ci am Valentine comme ni nga koy waxee rek feet bi tey pour ñëpp la. waaye tout d'abord aussi ma ñëw ci plateau bi fekk la fii nuyu la jaajëfal la. nuyu Kia. nuyu nag sama mag ju baax ji ma dendal di mbay maa ngi lay nuyu yow tamit lu bari. di nuyu salaam di nuyu sama magu jigéen ji tamit ngóone vraiment di nuyu ñoom njaga ñoom buuba bàyyuma kenn TFM yëpp maa ngi nuyu ñëpp an sa waa gis nga lii moom de mag ca seddaay ba bàyyi ma fii. kon kon néew fi nii c'est à distance. mais loolu gën a métti sur terre kii mais Pape loolu loolu loolu tam la. loolu pare nañ ci kast yi est-ce que duñ ci wax amour à distance. mais mais Titi loolu noo koy dundee. ak euh, journée tay bi waa xanaa bu ma sañoon de mu nekk sama wet nag monsieur Ndaw du dëgg waaye tamit lii la yàlla dogal mm-hmm. waaw moom naa ma ngi ci seddaay bi man maa ngi fii mm-hmm. mais tubaab ci bëri affaire génn indi na ñoom Viber ñoom WhatsApp ak yu baax yooyu nga xamante ne léegi da ngay wootanteeg nit ki nit ki sax di ko gis mm-hmm. ñoom bi xew léegi ku ku snap xanaa xanaa xanaa léegi léegi am ngeen chance euh, parce que ku ne xam na ni tukki dafa tiis te gise yombul non technologie moom tax na léegi lépp a yomb moom lépp yomb téléphone baa ngi fi whatsapp yi comme ni nga mhm. ko waxee lépp moom dafa yomb am nga ciy feem ah, euh, foo ko kal ci whatsapp bi wala ci beneen boobu noonu vidéo bi wax ñu quoi parce que kenn ku nekk am nga ci technique wala imo bi foo ko kal ci imo bi wala whatsapp bi foo ko kal rek wax ñu non moom moom pour ñu gisee moom difficile lul nag vraiment difficile lul. waaw parce que da ngay gis ne bu mu ci mën a doon léegi am na vidéo nga xam ne boo boo ci play moo xam WhatsApp bi wala bi euh, ci mën a doon rek. waaw ban la ci. Ah, bàyyi ma salaam. <laughs> wax ñu lu leer. wax ñu lu leer fii sa morom nekk fi. mu <laughs> ñu kenn rey. moom yaa xam na man xam naa du dëgg. <laughs> Eh, eh, waaw eh. mais ñi ngi gisee kabeem. donc euh, loolu la daal. c'est vrai que amul à distance xam nga. parce que amuloo jot bi amuloo jot moom mu ngay liggéey yow yaa ngi fii amour à distance bu njëkk kon la gënoon metti aussi waaw euh, mais léegi defe naa ça va euh, peut-être euh, gisee ngi gën a yomb par rapport ak bu njëkk ba dëgg la mais nag waaw comme yàlla na yàlla def rek mu jege si ko mais daal ànd bi ci nekk. Mhm. mooy comme bu may jëfee fek maam Ndiaye. waaw <laughs> <laughs> sa tànk sama tànk. waaw loolu de moom alalu golo moom ca lex ba. waaw kay c'est vrai que alalu la nag a mais mhm. mhm. mi ngi foofu donc xam nga. lépp rek dootul metti daal. mais te ngi bëgg a tëju tëju boo xam ne. mais mais mais mais am na yoo xamante am na yoo xamante ni a muñ <laughs> dañuy delluwaat joxaat Ngoné Ndiaye géwél euh, kàddu gi parce que tey mooy suñu spécialiste mhm. ah euh, yi neexuta muñ mhm. euh, da nga koy jëli mbaa nga ottal ko mu ñëw te benn bu ci nekk technique la boo mënul jëli nekk bitim réew ñoo jël sa sa jabar fii yóbbu ottal ko na la sa jabar jéema ottal mhm. te jigéen ñi ottal gi ci seeni comportement la dañuy ottalee seen jëkkër ba mu ñëw nan nan la jigéen wala war a war a ottalee iri waaw iri waaw jigéen day iri jëkkëram wax nga dëgg hmm. itam technique la mm-hmm. comme ni Titi wax rek jëkkëram sànni neeram fexe boobu ba gisante wuñu mm-hmm. félicitation yal na sax amiin amiin amiin yal na sax waaye métti na nag suñu waxante dëgg mën ak yow ah. parce que li gën a neex moment bi tey solo jàkkaaroon benn affaire lay doon comprendre nga donc distance bi nii day metti salaam bàyyi ma yeggalee man damaa xam ah, euh, voilà waaw fi ma jëm nii dama fay xam bu baax a baax dara waaw dama ko miin dama ko dund tubarkalla waaw tubarkalla dama ko dund mhm, mhm, mhm. <laughs> kon ngoone tàllalal bi sax non non du ma ah. jël APH bi du ma mbartalu tubarkalla da ngay bifurquer ko waaw de waaw ba tey mën naa mbëkk fëyi tubarkalla su ma bàyyi léegi ma teg ko ci yoon déedéet déedéet déedéet mën nga ci sax euh, la ci viber yooyu xew noonu am ci sax sa cappa caa jàpp sa capp neex. <laughs> bàyyi ma yeggalee. capp neex bi ci wax façon bi ngay waxee ak moom la ba mu yàkkamtee ñëw c'est ça. mais euh, jëkkër da nga koy indi wax nga ko sànq. Mm. sa jëkkër dafa sori. Mm. da ngay bàyyi ba suuf sedd guy. jéeg day mm. waxtaan ak jëkkëram. Mm-hmm. su suuf seddee. Mm-hmm. ba tey maa ci yoonu communication bi entre les deux amoureux. communication. Mm-hmm. parce que déjà ñoom fee ñu nekk dañuy stressé. ci liggéey. ci sori seen njaboot. ak seddaay ba sax ak seddaay waaw kay. ko xam nga oh. wallaay wallaay stress. waaw grisaay wéetaay. Euh, tristesse kon yow trouvé nga fi mu bëgg jëm. Mm. dëkkoo ju sori amul ñambaxtaan. amu fa. te jeeg tubarkalla da ngay dëggindaat dëggindaat ba ma wax. heure bii lay laaj tubarkalla minuit jàpp une mbartalu ban dem ba trois heures. ah heure dëggindaat waaw nga daal di jël APH bi. Ah, mbëkk ah, fay parce que tout est permis yow ak sa jëkkër nga daal di mbëkk fay jël APH bi mbartalu def maa mëmaroon wax lu la neex def lu la neex uniquement pour satisfaire sa jëkkër. dëgg yaa ngi ci iri bi ba tey. am mhm. na noo ci comporté woo tubarkaal la demain matin tey mu dem agence. dagg bi ñibbi. <laughs> dag may nuyu. <laughs> man tee ba bàyyi kiyaa sax ci yow <laughs> te tukki nga defal ma lii. comprendre ngeen bu leen ma reetaan loo. lu leer laa lay wax nii. Mm. man damay def émission secret de femme. kon li may wax dama ko maîtriser. effectivement te def naa ci émission yàggul dara. Mm-hmm. jigéen woo ma ne ma damaa boyal ànd ba sonn. Mm-hmm. gisuma sama jëkkër. ma ne ko jëlal émission bi may def nga enregistré ko tegal ko ko. bamtuwaatal comportement bi nan la war a def euh, minuit ba 3 heures du matin. mooy dëggi heure dëggi ndaat. <laughs> dama ne jeeg pii da ngay dëggi ndaat. waaw dëggi ndaat ci jonge la ba tey. Mhm. waxin la junj doy na borom xel. Mhm. mag ngi may seetaan ndax doomu mag laa. Mhm. te sama yaay daf may dey xam na li ma wax. te tamit foofu dinaa fa ñëw. titi yaay yi na ni waxtaan xale yu jigéen ñi. xale yu jigéen ñi mën nañu sëy. mën nañu provoquer mais mënuñu gérer. dama dama bëgg ku suivre action di topp action ba mu sës. yaa ngi comprendre li ma la wax. maa la dégg. dégg nga déggoo ma sax ndànk. non li nga wax. Mhm. nopp bu baax bi nga ma jox monsieur ndaw doo toggee ba une heure du matin deux heures waxal ak moom ci filig tubaab gi bu ree du ma la tegee ci. <laughs> mais Ngoné euh, euh, euh, Titi dafa mel ni li ngay wax noonu moom da koy dund. da koy dund dama koy liir ay réaction maa ngi koy liir. Ngoné di détaillé. <laughs> te ngoone jëliwu ma ndax déggoo ma ne ko lii nga wax waaye man it lii laa wax waaye xam nga ni temp temp di dafa baax mm-hmm. te dëgg la nag tey whatsapp yi wat euh, Viber Snap mm-hmm. yeeg yëpp a ngi fii mm-hmm. waaye yooyu defarul sax sëy dëgg la ndax sëy pour man dafa war dëggantaa njaay moo gën naxe njaay ndax loo xam ne euh, jógewu fa ku ne war naa mën a xam ne original rek nga yor te tamit léeg-léeg tamit euh, liggéey bi daf koy obligé. Mm-hmm. du war a mën a ñëw man mu téye ma ba du ma war a mën a dem. Mm-hmm. mais mën a neex foofu neex fii ba nga xam ne day dañuy ànd mu neex. Mm-hmm. waaye jàkkaarloo dana dàq ko ci di. waaw la waaye tamit. neex neexu téléphone neex neexu téléphone neex neexu Viber imo yi ngay gis jàkkaarloo xam ne leen du moom. jàkkaarloo gi dàq. yow tam tubaarkàlla. mooy dëggantaan jàpp bu góor bu la dëgg man koy gàntoo. teeg maa bàyyi. <laughs> je pense que je pense que il faut il faut comme actuellement les nerfs sont tendus. suba kenn du liggéey sécurité pour nos oreilles suba kenn du liggéey. Euh, léegi comme dañoo bëgg sécurité comme dañoo bëgg sécurité euh, pour nos oreilles euh, nañu defaraat toggaay yi tuuti nii ci conseil yi nga xamante ni Ngoné Ndiaye Géwél mi nga xamante ni moom mooy spécialiste bi ci affaire secret de femme affaire bëggante ak amour à distance li tax ñu waxtaane ko Titi. borom këram ma nga bitim réew donc loolu defe naa metti na balaa ñu ciy àggali ak grand mbay ba euh, papa mbay ba sama papa salaam di ma wax sama yaay bu bees bi mu takk fan yi fii la ne wala fële j'aimerais juste ñu déglu benn xale boo xamante ne je souvent que avenir de musique sénégalaise mu ngi ci loxoom euh, euh, kéwél du tëb doom ji bët Momo Dieng Sénégal xam ko lool téléphone portable xale boo romb hmm. langue gi moom lay sonné. téléphone portable xale boo gis Momo Dieng moo coy woy snap boo dugg Momo Dieng moo koy woy maa ko fekk studio ci benn fan macha allah la enregistré album bu doy waar ci biir album bi nag am na benn woyu mbëggeel boo xamante ne à chaque fois su ko dégloo damay am chair de poule moo tax j'offre ça exceptionnellement à Kia tey ci soirée spéciale Saint-Valentin ci télévision Futur Média Momo Dieng moom Momo Dieng que mën nañu toogaat ah, ah, xale bi xale bi jar na ko yow artistes yu ndaw yi ñu dégg yëpp yi ñu dégg yëpp. xam nga ñun suñu làngal suñu làng sénégalais yi ñu moo la moo la ci gën a neex. ñun ci ñi ñuy dégg yëpp yaa ñu saf. ndeysaan ah, mu nekk xale bu yaru. <laughs> jërëjëf démb bërki démb. dañ taxaw grand théâtre Aliou Mbaye Nder man ak Youssou Ndour ñu ngi taxaw ci coulisses yi ak Mbaye Dieye Faye mm-hmm. Youssou moo jóg mu ñëw ba ci yow mm-hmm. félicité la dëgg loolu dëgg dëgg la ne la bàyyi naa la xel bu baax mm-hmm. jërëjëf yàlla yàlla dal sa ah, damay nuyu ñi nga xamante ne ñoo teew ci plateau bi di nuyu sama kilifa Mbaye Dieye Faye man damay wax ne ñoom ñooy samay kilifa te fu ma leen fekk dama leen di nuyu jox leen seen wàccuwaay di nuyu nag Abdou Salaam mi nga xamante ne fu ma nekk mu fekk ma fa moom it di nuyu Ngoné Ndiaye sama mag mm-hmm. ah di nuyu Titi kii yaa tamit def sañse bu mm-hmm. baax ni mm-hmm. Pape Cheikh moom sama mag la moom dama xër ci moom waaye moom it dafa xër ci man ndax euh, fu mu toog bu ñuy lim artistes yi dama ciy tudd bu ma ci jiitalul dina ma ci tudd kon Pape Cheikh damaa yàgg ak moom ndax man naa ne moo ma yar ba mu may woone 2S ba mu may jël 2S show premier numéro booba kenn ñemew ma invité ndax booba damaa nekk xale lool di la wax ne nag lii lépp yow la. macha allah yow yaa tax may may góorgóorlu. <laughs> am na am na secret boo xamante ni dama ko découvrir ci album bi muy génne mais comme tey mbëggeel la ñuy xam naa ne bis bu ñuy waxtaanee musique dinaa détaillé lu bëri euh, ci euh, li ngay euh, li ngay li ngay préparé sa baay bu dellu si woon defaraat defe naa doo defaraat sa toogaay. ah lii nga def nii Sénégal yëpp bëgg nañ ko on te souhaite bonne chance ah. la mu miin saa yu ko gisul weet. picca nga ca kaw waaye xel maa nga ca suuf ñaar suñu bëggante yi leen ñaanal mbëggeel dafa neex moo waral tey ji Saint-Valentin xam ngeen ne si lii dafa neex mel ni maam Ndiaye ak ki nekk farlu merci Momo on t'offre un cadeau. Euh, lii euh, kadi moo la ko moo la ko may euh, mën nga ko ñëw jël si. et teg ko ci biti ba pare dem ci buffet bi. parce que tey yamuñu ci show bi rek on vous offre en même temps un buffet en direct ci télévision Futur Média wéy leen di woote ñu ngi leen di xaar ci numéro de téléphone yi nga xamante ni mu ngi affiché ci suufu écran bi on vous offre beaucoup de cadeaux pour la Saint-Valentin émission bi daf leen di may week-end euh, euh, pour deux et puis on a d'autres cadeaux grâce à nos partenaires invités yi dañuy am cadeau yéen ñiy seetaan euh, ak heure bu ngeen mënti woote bu ngeen xasee ba dugg am nañ seen ay numéro de téléphone grâce ak plateforme bi nga xamante ni moom la ñu am ci ginnaaw ñu tànn ci ay numéro de téléphone woo ci quelques téléspectateurs comme ça ñu jox leen loo xamante ni dina mën a dëggal seen bëggeel ak ki ñuy bëgganteel partenaires yooyu noonu kii yaa bokk na ci kër Aram jàppale ak ñeneen ak ñeneen. étoile boobu di euh, Palm Beach mm. euh, Sénico euh, mu ngi fii ak li nga xamante ne mooy bouillon yeeg bër yeeg pâte tartine yi ki nga xam ne mooy Darou Salam traiteur également mu ngi fii et puis la maison des fruits Pape Cheikh wax naa ko léegi bouquet bu yanj bi mm-hmm. xam nga bu ñu la toppatoowee Saint-Valentin le lendemain mm-hmm. bu la neexee sax mën nga yendoo lekk ay fruits Euh, donc euh, ki nga xamante ne mooy euh, bouquet de fruits moom lañ leen fi tegal yéen a ko moom comme ni ko Pape waxee léegi woote leen dinañ tànn ay numéro téléphone ci yéen ñiy woote ñu daal di leen woo jox leen li nga xamante ne mooy cadeau yi fi nekk alors Pape Cheikh donc on poursuit. ah da nga jël péage bi. dama jël péage bi ayca demal ma xool. Pape Cheikh soirée bi dafa commencé dafa commencé neex parce que dama gis sànq sa papa. Mhm. ba ñuy ba ñuy. way man sànq balaa may ñëw. waxtaan ngeen final. sëy nii la waaw kay sëy nii la rek. waaw. gan sama papa am lan. sama koro. waaw waa man sa koro léegi lan. <laughs> waaw. papa sànq ba tey dañuy insister ci takk bi. Euh. nga ne doo ci wax. Euh. léegi dama bëggoon xam bu dee takk suuf la tam. Euh, dañ fi ñëw pour Saint-Valentin. du xool ku ci nekk nan ngay jàppee sa jabar ak sa jëkkër ak nga bëgganteel. il faut pas faire hors sujet. sànq elle papa sànq wax na ba. nii laa toogee woon waaye bu ñu damaa toogee nii. donc. Euh, Goro waxal ak Pape Cheikh. Goro Goro. waaw maal ndax man nga xam sama baay sama baay daa rouler ba ba ñu defee nit. ba ñu jàggaat jël ba doo ci yumpaañ yow tam incha dinaa ko indi da ngeen ko bëgg a gis. ah kon nag mu ngi ci salle bi. ah d'accord. waaw lu garaaw laa leen wax. alors elle est mën naa xool léegi ma wax leen kan la. tey nag laay xam xam doonu ko say maam. Mbossé liggéey Malamine yéen liggéey Goucaabu Caam maam bu Caam Aala Ndiaye tey laay doog a xam xam naa ne am na lu yàlla def ci yow. Ah. démb laa ko wax dama say kër Mor Maane. xoolal ni ma kii la te normalement boo doonoo samay maam doonu maam gi nu bokk dinaa xam ni la sama maam amoon mi ngi ci yow. bi nga ko gisee noo noo noo ko kiiwee man pour ma mën ko xàmmee noonu parce que euh, euh, balaa takk di am. ndoxaan dina am. baal ma papa. waaw euh, euh, laataa ndoxaan am na lu tubaab tuddee coup de foudre. coup de foudre dafay judd ci ay regard. waaw da ngay xool léegi dama bëgg nga jàngal ma technique xool. waaw noonu nga ko xoolee ba gis ko ba takk ko ci fan yii man ma jéem koo xoolee noonu pour xool yëg-yëg bi nga am ba takk ko. ba tey ci Saint-Valentin bi nga indi ko lii laa bëgg a woon téléspectateur regard bi ma regardé woon. waaw jour ba ma lay njëkk a gis. Mhm. kër ñoom Kolle Faye Sébikotane. Mhm. laa bëgg nga xef ñetti yoon sa bët ñu xam ne yow la. mangook tey laay doog ko xam tam TFM aay nan wala aayuñu. est-ce que mën naa jóg bu fekkee équipe technique bi permettre nañ ma ko. waaw je peux d'accord. waaw xefal ñetti xef rek. ñu xam li yow la. waaw jabar sax kenn du ko nëbb. waaw bébé tu fermes les yeux trois fois lentement et doucement <laughs> oui trois fois bébé trois fois trois fois chérie bébé ne ferme pas les yeux. bébé enlève ta main. sama papa nobu la. bébé ah. sama papa nobu la <laughs> non non non sama papa nobu la. <laughs> papa kii la. barkis maa la ko wax moom la yëkkatil tàccu leen yëkkatil loxo bi. <laughs> mais je pense que je pense ah. qu'elle peut elle peut elle peut mën rejoindre fii ñu gis ko ci lumière bi. bien sûr sama jabar papa ngi. bébé attends. <laughs> bébé sa walang bi. <laughs> Eh waaye sama walang jabar papa ngi. voilà ah très chers amis. le Sénégal, l'Afrique, l'Amérique, ah l'Europe, l'Asie. Ah la TFM vous propose en exclusivité. <laughs> devant Bouba Nour, ah devant Pape Cheikh Diallo, ah devant Tititine, Mbaye Dieye Faye Babacar, l'ami de Youssou Ndour. Ah ouais. Bul indi Kia. Euh, moom fils. mais papa yaa bëgg jigéen bu ñuul. dafa baax kaa bëgg dafa ñuul. devant ndey. Euh, ngoon mi ngoone mi ma yàgg bëgg a takk mu bañ. <laughs> bébé. demal nga nuyu titi bébé. Eh. nga sukk ko. waaw ah, waaw. très bien t'as ma femme. papa sukk nga ko. Euh, bébé tu salis Mbaye Dieye Faye. <laughs> Mbaye Mame Ndiaye. <laughs> bébé tu salis Kia. ok bébé tu salis papa Cheikh suma doom bébé tu salis. sa wujj oh, <laughs> bébé. bébé. et papa. Hmm? papa kañ nga ko takk. Euh, ci fan yee passé mu baax lool. macha ko xam ne xale bu ndaw la xamul lu dul njuróokum soow. du dëmm du nuxóor. parce que ba fantu yaay ji. la tey. bébé je te déclare ma je demande pardon tout ce que je fait de alors papa xam nga la laa bëgg ba ah. ngeen di teral ah bon je vous offre un week pour deux yéen oh. ñaar Framisima Palm Beach bébé t'as amené ta pochette elle est là-bas Voilà. D'accord, tu gardes ça. Après, on va. Alors, <laughs> pour yéen ñaar laa leen may. En plus de week-end pour deux bi. parce que ci suite la. non seulement papa boo fa ñëwee dina fekk man ak Kia ñu dal foofu. oui de temps en temps sañ naa ñëw. mais pas trop déranger. <laughs> faut pas trop déranger. dama mus a dem France. <laughs> am ko ma doon labat. Eh. dal ko Ngoné Ndiaye. Ah. ma dugg ci néeg bi di waxtaan rek. mais dañoo jékki-jékki rek am ko barastiku daanu ci ñun ndeke ngóonee doon yéem naan sama taaw bëgg ma la bëgg moo tax bëgguma laa bàyyi ngóone papa ndax mën naa def si loolu bu ñu tasee ca hôtel ba waaw bay jëy fi jógee te duñ lëmbal sunu gémmiñ Ngoné Ndiaye lëmbal léegi léegi léegi dama bëgg dama bëgg dama bëgg waaw titi woyal leen ay damay jooy de titi la bëgg mooy ah, lekk mbëggeel nag bu fi wax ay sëñ Sall wala mbëggeel rek. tàccu leen tàccu leen yéen tàccu leen comme ça bégal. sama papa ak sama jabaru papa. c'est parti. <laughs> bébé va t'asseoir attends je t'emmène. Kiné Lam ma mm-hmm. mama xaar mbay mm-hmm. ñoom mama Soda Mama ñoom day Fatou Ndiaye mm-hmm. lépp rafet na ba pare waaye nag dafa fekk ne way tamit bu yeetewul diklewul it ay naxaate la ba nga xam ne donc buñ day way mbëggeel tamit dañ ci war a teg loo xam ne buñ ko fa tegee rek kenn du ko teggi loolu moo tax dañuy jéem rek taataan ci noonu du dëkk ba nga xam ne parce que tamit am na way yoo xam ne tamit foog mu jàpp nit ki ba ku ci nekk day foog ne moom ngay waxal donc da ngay gis ne way boobu bu génnee rek day des parce que comme j'ai l'habitude def ay tube de deux ans trois ans loolu tamit dina ciy participer ndax tamit liggéey boobu noonu nga xam ne tey moo war a xool gën gi dëkk. Hmm. bi ñu ko génnee léegi war na def léegi trois ans. mais saa yu ko déglu day mel ni lu bees mel ne tey la génn. ah oui kon loolu thème bu bu baax moo koy mën a def pour loolu tamit mën a taxaw fi mu di xam nga ne ay love bi Youssou Ndour waay rek. Hmm. dara desatu fi. Youssou la ñu bëggoon mu ñëw <laughs> woyal ñu ko. Eh. mais dama leen bëgg a wan ñi mu yabal. pour ñu euh, bégal ñu ci I love you regardez ñëpp képp kuy waykat. Uh-huh. toog di seetaan moment bi am nga lu la bett. et ñoom dañoo féroce. waaw bon mais bettu moon sax ci Ndiaye. Uh-huh. parce que xam naa ni mën na way. Uh-huh. mais bett na ma ci doyen. waaw et puis dañu way ak justesse. faussé wuñu Euh, romb ñu accords yi wéy. féroce et mu rafet lool. daaro nekk seen biir moom tamit joué benn rôle. Ah. bu nice en tout cas je vous félicite. Ouais. félicitations. merci. il faut ngeen wax ah Ndiaye doyen daaro euh, ci concept bu bees bi nga xamante ni euh, tey ci guddi gi ngeen tànnoon pour def bi ci soirée spéciale Saint-Valentin Ndiaye doyen Daro. waaw Pape mu doon mu lu ñu neex Ndiaye doyen Daro. waaw vraiment buñ ba noppi. Ndiaye doyen Daro te li ci gën a neex mooy euh, maanaam day trio de choc mu ngi mel ne Messi Neymar ak Suarez. Ndiaye doyen Daara. Euh, ñuy ziar bu baax a baax euh, grand Mbaye Dieye fay suñu père sax laay wax di ko gërëm bu baax parce que ci xolom bu rafet ci. jàpp jàppaleem bu rafet ñu ma xam ah, bu ñu jógee foofu damay ziar ñu toog ci plateau bi yëpp mais Pape xam nga mosoon naa fi wax ni janax day bari pax. Mhm. bu bëggee mucc. Mhm. loolu nag lii benn affaire la ci rek. ci mhm. kàttan yàlla. Mhm. nañu nit ñi xaar Ndiaye doyen Daaro. waaw. <laughs> Euh, ñu nekk ci Saint-Valentin tey ñu ne nañ ko fi parce que Saint-Valentin xam nga lan la xam nga lu tax ñu Saint-Valentin ñu ni Saint ni Valentin. Ah, te yàlla. te kat doyen mooy koo xam ne saa yoo ko nee mën ngaa fay mu takk mool su ma gis li saa yoo ko nee sa sombi bi neex na lool mu ne abal ma géej gi ma def ci. ak tuuti yéet waaw bàyyi ko mu dem ci tuuti tuuti ci Saint Saint Valentin Ndiaye doy. xam nga moom. dafa am ni ñu koy laajee soo bëggee mu tontu la. ah gannaaw ba ma nuyoo suñu kilifa yi nga xamante ne ñoo fi toog di nuyu sama mbokk yi mooy collègue de service parce que man collègue mbokk laa ko tuddee di nuyu Sénégal gépp gi ñuy seetaan te xam ne lii wax dëgg yàlla mooy avancement liñ naan boo ñemee rek dañ laa déy. te it dafa am ku nekk suñu ginnaaw koo xamante ni seetaanuñu benn yoon te gis nga Pape Cheikh loo nekk ci àdduna am kilifa gu la respecté moo moo ko dàq te it euh, wax dëgg yàlla suñu kilifa daf ñoo respecté lépp lu nga xamante ni mooy suñu avancement rek mu ngi ciy dem ak ñun mu ne Saint-Valentin bi nañ ci créer yu mel nii te it ki ko moom disponible ci lool waaye nag noonu la mën a mel parce que il est intercontinental mm-hmm. amul loo xamante ne nii dañ naan guléet kon doyen maa ngi lay laaj lu waral Saint-Valentin. Ndiaye boo lu waaye wa waaye rel nga ni ma Saint-Valentin am naa envie wax ko am droit wax ko am satisfaction ci wax ko waaye am mbégte jàkkaarloo mu Pape Cheikh Diallo ak Mbaye Dieye Faye di ko wax Ndiaye. kon Doudou. Hmm. waa. Ah. du'aayee kon du'aayee la mooy sawarante li ko sopp bi su mbëggeel bi jógal taxaw tàccu daal di ñaaj xuus jàdd dugg tëgg doogi dem peex taal ak yéen ñi taal bax la jaxe ñi piroo la a tax noonu tam nen kañ karara ak bopp ci ñen la jël si ñoom ba paal ma faala poto paal sakal ak leewata soo tamani Saint Valentin tey ji loolu danaa ci wax njaay boo ci laajee kon doyen doyen yeye du bañ dal dal rek. man nee xale bi naan ma li ma li la def li la ma ne ko dinaa ko def léegi. non doye non eh, la doon doon dóor. moo lu ne def na ma ko. léegi bu féroce bi bëggoo ko. non bëgguma ko agressif. Hmm. homme bu agressif. waaw femme quelqu'un agressif dans ta mari de ta femme ta mari de de ton ami de maigrir. jéeg boo ci gis mu ngi ci sol ñetti couleur yu bokkul vax xaatum mari dañuy boole vax xaatum penzap musooroo penzap woddoo xaatum sol tay baasu vax ñetti couleur benn du bokk ndey ak baay di xeeñ géej ak seen femme seen seen copain la la la homme la la mari de de ton femme il est agressif <laughs> maa <laughs> la ko wax la dagg neexul man daaw ci heure bi laa mari yow dama doon nuyoo paree pareegu ma nga dog ma Pape Cheikh bàyyil di ma dog Pape Cheikh yàgg na féroce ñëpp <laughs> mere naa la trop ak li ma lay bëgg yëpp mere naa la trop kii yaa nuyu naa la ay dara karaara jonga ma nga ba siburu dangaa jonga ma ba foofu nga toog na dangaa siburu <laughs> ku la joxoon ñaari comprimé nga weer jonga ma macha allah sa yëfa eh, jonga ma sa yëfa sa robu jonga ma ne dégg nga nuyu naa la bu baax a baax Pape Cheikh nii la may def damaa dem këram muy ree di raam di raam ba mu neex ko mu yéeg ci taabalu taabalu digg néeg salon bi taabalu verre bi yéeg ci kaw tëdd ci Pape Cheikh def na loolu këram mbay jo fariñ bay fekke na ko bàyyi yi may def danga may nii lu may wax léegi <laughs> mais seet bi dina garaaw trop tàcc leen daaw bu baax kañ laay eggale ak monsieur Samb Pape Cheikh xam nga ni man ñetteel la <laughs> eh. man xale bruit bii da ñetteel la ma ngay nuyoo ma lii la la tamit. ma damay ñibbi exclusivité. ma damay dem déedéet nit du la invité ba pare di la tontire ni ki lu def ni yii la may def. ayya yii la may def na bàyyi li muy def ma eggale. ayaya. xool mu ne ayaya. yeggaleel. <laughs> waa kay yow posé ma question ma tontu la man dootuma xoolati ay reetaan. ñetteel nga. ëpp na loolu est-ce Sénégal xamoon na ko. déedéet yéen xamoon ngeen ni daara ñetteel la. déedéet waaw nooy seeyee nooy wujjee ku ma ko wax nga. sóor yi ñu ngi fi. ñu lay ko defati. <laughs> xale bruit bi yee ñu ngi may seetaan ñu ngi may seetaan ba mais dootuñu ko defar pour man rek non. <laughs> faa nga peur. c'est très normal nan ngay nan ngay parce que jigéen bu nekk day xeex place am. Mhm. ñetteel dafa metti mhm. aaw ñaareel ba ñetteel. te xam naa ne sàmm moom dalaa jox bopp. yee yee tuuru na. yow léegi lan mooy lan mooy sa technique pour ñetteel yi nga xamante ni ñooy seetaan bu ñu bëggee seen borom kër jox leen bopp. fem yi nag yomb na de Pape Cheikh. comme yan xam soo gisee daaru ci télé beeg nag jaagal jaagal beeg ëppal beeg wax ju bari da ngay tiit mais soo soo fréquenté daaru xam ne du ca lenn nag. waaw ah, ndox mu sedd buy baxal nen la. nuyu nuyu jëkk sa wujj yi. du ca lenn nuyu ci naa leen. xamante ne ji. <laughs> na ma leen nuyoo Pape nag da ngaa bëgg a dugg sama vie privée c'est mon vie professionnelle. <laughs> Pape Cheikh ni ma leen nuyoo pourtant garaawul. sama samay kër goro laa dem ñu fekk ma fa. Ah. ñoom it ñu oyof ngi leen di nuyu de passage samay mag lan. mais ñoom bu ñu bi du ñu tiit. non non non non duñ tëdd. yenn saa yi di leen xëbal na tuuti ñoom bi may doog a gis. mais di nga leen xëbal tuuti nag. ay tendance yu ndaw da ci baax. non commencement bi ñuy a dégg daara bi rek xawoon nañ peur moom ñu ma ak a may seetaan peuroon ngeen peuroon nañu moom mais après bi ñu ñëwee ba fréquenté daara nee nañ moom xamuñu woon ni man nii laa mel yow xam nga ma sax ah man moom ama problème yaa ma gën a xam mais Moussa bi daal ni nga koy téye ba moom xolam doon saytaaneem dégg naa Ngoné Ndiaye di ko wax sànq ah dëgg neexul jigéen day doon saytaane jëkkëram man moom su ma neexee yëkkati sama loxo ca kaw un an yàggaguma ci waaye def naa samay bagage ba moom sama jëkkër lii da laa def lii da laa def ak xeeb barke sëriñ Fall xam nga góor moom bébé la lan wax boo ko naxee yaa ko moom ah tonton Mbengue boo ko naxee mu ñooxu la dëgg neexul waaw ba pare yàlla def noo koy naxee da koy da nga koy da nga koy curul mbaay wala curulu mba xam euh, jëkkër soo ko amee da ngay foog moom da nga koy def delloo xale ah delloo ko 18 ans def ko xale rek yow man sama jëkkër dafa sedd xam nga li naan boo amee. jabar bu xumb ban folo gën a bëgg ci ngeen di foo yéen ñaar. boo amee jabar bu xumb. a bëgg. maa ngi ñëw boo amee jabar bu xumb. <laughs> en général da ngay am jëkkër bu bu a da ngay am euh, bu fekkee da ngaa da ngaa sedd. duute loo reere déeg cere gësam ban la gën a bëgg ci foo yi. waaw kii du ma bàyyi xam moom pourtant yooyu yëpp dama def moom ay juutam ay loo reere bi. ëpp na. da ngeen di tam ay tam di ngeen tam yéen ñaar. eh Pape Cheikh noo naan de. yow tam li ma dafa bëri billaay dañuy tam ban ngeen di gën a def tam wala te mbaay dañuy tam ak lii affaire zëw xaalis boobu noonu teg xaalis def ni waa ndikkee tamit wëlbatiku mhm. euh, daal di def naka sudul noonu mais yow mhm. yaa sëy si mhm. sëy si sëy si waaw waaw tey ci nooy doxalee ak say njëkke comme li may wax rek li may wax parce que tamit euh, sëy moom dañ koy jàppee ni sa kër gi nga juddoo waaw soo ko defee rek doo fa gis lenn. Mhm. ndax sa rakk jëkkër boo ko jëlee jàppee ko ni sa mag. Mhm. lu mu def nga accepté lu mu def nga bul xool loolu. Mhm. mun na war a mën a difficile sax yow nga ñëw neexal ko. comme ni nga neexalee sa jëkkër. waaye bu fekkee dangay xool ne man du ma neexal kenn wala duma ki doo fa yàgg. da ngay boot ñëpp. Mm-hmm. maase la ñëpp léeg-léeg sax nga yeewu sax gis benn Pape Cheikh yeewu kanam gi xaw a fora xam nga nga ñëw nag ah baadu dara ma defaral a kafe wala yooyu mm-hmm. da ngay kaf ak ñëpp di reek mm-hmm. ñëpp léeg-léeg nga di leen nemmeeku di nga dem ba ñoom seen bopp seen soxla bu ñu ko amee duñ dem ci sa jëkkër yow yaay doon seen confidente parce que dañu ñëw di waxtaan ak yow kër gi bu boobaa lu xew yow yaa ko njëkk yëg sax avant sa jëkkër da ngay uuf ñëpp bul xool ci kenn lenn mhm. ku mer sax yow ñëwal géefal ko bu dee ba gis ne kii de heure bu ma meree mhm. sama rakku mag bi jabaram ji heure bu ma meree mooy ñëw géefal ma day mhm. dem ba ruus day lay fekk si moom mooy dem ba wàcce boppam. xam ne yow it nitu kese nga. c'est difficile le pape. soo ko yenoo rek lay difficile mais c'est comportement la muñ rek la waaw muñ rek la. muñ la dara neexul. pape sëy bi gën a neex ci sëy yi xam nga ban jeeg la fin. comme maam Ndiaye may wax léegi jëkkëram confirmé ko. soo bëggee sëy tubaarkàlla muus da ngay sëy ak jëkkër ak xariti jëkkër ak mbokki jëkkër mm-hmm. soo jëlee tey say rakk jëkkër la bëgg leen fonk leen bool ba ngay taajal sa jëkkër di ko taajal ak ay rakkam mm-hmm. moom déjà mi ngi lay xool dalay lay yokkal ay point mm-hmm. te danaan kii kat xatalu ma ndax man damaa bëgg di bëgg samay rakk kii su ñëwoon tey tàkkale ma ak samay rakk wala samay mbokk fu ma jëm ndax am na ba tey mais am na ci jéeg di nga xamante ne dinañ ñëw séparé di ber seen jëkkër soo soxlaa seen jëkkër te bokk ak moom ndey ak baay ñu ne day na la. Mm-hmm. sa yaay ji la jur nga xam ne stratégie boobu damay expliqué ñëw dugg ci kër tasaare moom. jigéen a ngi koy def. Mm-hmm. mais defe naa mooy mooy mooy mooy sikk bi gën a yées ci sëy. mais nag kay la ci kër rek xaajale. xaajale boobu toujours soo koy def. am na ci njëkk yi ñu mel ni ñun géwél yi nga xam dañoo pànk lool. soo ñu jaayee mbaax ñu bëgg la te ñooy defar sa sëy mhm. doo am wujju ñoo lay xeexal mhm. ñuy contrôler sa jëkkër dëgg la mais bu fekkee da ngaa ñëw di giita nga sa ñun di ñu féewalee suñu càmmiñ yaay ji ko ëmboon juróom-ñeenti weer nga ñëw dëddale ko ak doomam am na mhm. fi de li may wax doo am dara lu la neex jéeg bi def na ko la dugg ci famille bi di sëy fonkul njëkkee fonkul goro yi faalewu leen sama jëkkër laa faale wasin tubarkalla ñu koy ngéntee mu ñëw ci ngénte de xam nga tubarkàlla kuraay doom kura da baax na ci jeeg jeeg bu ne da ko war a sàkku taraanga du caaga ne par force da nga koy def mën nga ko am mën nga ko bañ a am mais may leen jàmm may leen salaam respecté leen bëgg leen am yëg ak safoog faale jeeg bi nag faalewu leen respecté wu leen xoolu leen tegu leen benn place wasin jóge salon la defe na njëkkee dañ koy feccal mu taxaw lu yàgg ci oto bi <laughs> njëkkee teg la seen tànk rek mel ni Ngoone Njaay mu xam ne fii dara du fi baax mu daal di jéggat wut si leen bëgg a dégg kura mbartalu <laughs> jéggi croiser le bras rek <laughs> mu jig mu jekki-jekki ku ci nekk mu ñëw waa mu tokkooju ku ci nekk mu ñëw fekk la fi nga toog daal di sukk dafa cuur <laughs> jéggi daal di xool ca kaw njëkk yi mu daal di jekki-jekki daal di jooy mi cax bopp bi mm-hmm. daal di ay si bi doon tey dinaa changer sama toogaay dina changer sama dox doxalin kon jéeg ji nañu fonk njëkke yi fonk goro yi taxul nga ñàkk fayda taxul nga taxul ñu yàb la mais pour neexal sa sëy la sooy neexal sa sëy da ngay fonk say njëkke fonk say goro di neexal sa jëkkër ki neexal jëkkëram da koy wut ci ay famem man te yow lay sëyal dama bëgg la neex sa rakk ji nga bokkal ndey ak baay laay ñëwal ay mbasin di ko jox di ko jëndal ay marocain di ko jox parfum yu baax mu bëggante ni ma koy dox kooku tey àdduna du yàgg mukk ba nga am problème ak sa jëkkër muy seetaan. kon nan góor dëgg la tàccu leen <laughs> loolu. Mhm. day day revenir Pape Cheikh si si xeetu jonge euh, nee nañ euh, Tor Mbéjé dafa wax léegi ci goro euh, nee nañ ki la ki la ki la jox li nga gën a bëgg sa xol ah kooku mënoo def lu dul fonk ko ki nga xamante ne tey moo la moo la yor. ah euh, kooku mënoo def euh, euh, ngone lu dul fonk ko mhm, mhm, ah, mhm. ñu waroon ñu war jàppaat ah, suñu goro yi bu baax ah, wax leen toppatoo bu baax war a fonk njëkke yi comme ni ko Titi waxee exemple la certainement li mu wax da koy dund mu nekk lu lu lu profond Papa ñu bàyyi la nga tànn ci sa kàddu waaw li mu wax dafa am solo Mbaye Dieye Mame Ndiaye presque ñun ci keppaaram lañu yaroo Euh, bu nee ceeb bu weex lisance ceeb bu weex bu am suul ak bëggat danga ko koy jox dafa am un dafa dama añee këram. Mhm. xam nga dama dugg ci oto ba fàtte sama course. Mhm. course gi may wér dee de. Jurbel lan jóge woon. Mhm. course ko ba léegi mi ngi ci mi ngi mi ci moom. mu jigéen joo xam ni. moom ndeysaan dafa tëddee njaaxaanaay. xamoo ku mu jur ak ku mu jurul. loolu dafa baax ci am importance ci couple. ci foyer. Sacré Cœur majeure partie jeunes foofu la ne añ mm-hmm. Papa Mbaye la ko ñëppee woo barke borom Touba mm-hmm. beneen bi mm-hmm. muy am exemple ci Salim Boubacar sama xarit bi nekk RFC ak ki nga xam ne mooy jabaram bu toogee doo xam kan mooy jëkkëram c'est bien ça ndax yaatu waaw beneen bi muy Daba Seye Mm-hmm. daba sëy sama yaay la mm-hmm. moo nekkoon ci man di ma aw mm-hmm. may xaritoo ak jëkkër mormaane man maa yëkkati daba sëy may ko te ñoom ñaar ñëpp a neex chaque jour que jëfee fa la toog ba nu julli fajar mais sa jarbaat boobu du nelaw ndare nekk fa moom tamit. ci Sénégal kuy wax Mor nee na daba da koy woyal de temps en temps mais ñun ñëpp lay woyal. dara bëggee ko lii Mor maa ne dama koy woy allo Mor ku mën a woy. <laughs> sama patron defe naa mën a woy mën na ma da bëgg a dégg dëgg rek. <laughs> dëgg dëgg rek nga bëgg a dëgg <laughs> Youssou mën na way de mais kenn du ki jàll ci sa <laughs> Mor Mané c'est ça loolu mooy mbëggeel loolu mooy sëy jàppalante supportante communication mooy li ñuy répété depuis sànq rek da fonk sa sëy teg ca ay bokkam ndax say comportement la say comportement la en fait donc en fait dama dem ban ko yow man maa la mayoon jabar waaye dafa mel ni sax ñun dañuy joxewaat may gu njëkk ñun dañ lay dellowaat sa may gu njëkk loolu yëpp ci comportement la donc ñiy sëy yàlla yàlla guddal seen ah leen bu ñu bu ñu bu ñu defaatee tour de table ku ci nekk am na nu la sa euh, ki ngay bëgganteel sa soxna wala sa boroom kër di woowee mhm. euh, man bëgg naa ñu may woowee bee euh, yooyu dama ko bëgg bee waa ah, allo bee bee wàccal yow tamit ah bee sa émission bi da ngaa kii da nga kii da ngaa loolu 11h mhm. la waroon jeex yëpp daf ma koy wax allo bee xam nga wax ju neex dafa neex bee man biscuit laa koy wooye en fait biscuit biscuit yi ngi nii toog. waaye man bee la ma woowee allo bee. sa lunette yi xam nga damay takk ay lunette faj fajar gi samay bët baaxul. damay jékki-jékki kilim bi dugg. boo xiifee lakk ko de. <laughs> barki dee bu nee naa ko poñ sama <laughs> man naa nooy nepp rek bu ma bu ma sàqami. war a xam benn yow noo bëggee ñu lay woowee. <laughs> waaw yow ak euh, tubarka. mbartalul rek. ma <laughs> mbartalul dafa dënk man nag euh, li ma joxe tubarkalla nee naa léegi jéeg ñëpp nañ am tama. Hmm. yooyu ay euh, point la. woote bi waaw parce que euh, góor ñëppay tëgg tama léegi tubarkalla ingénieur yi dañuy tëgg tama docteur yi dañuy tëgg tama. ak directeur te li gën garaaw ci. amul rakk a garaaw ci jéeg mooy dugg sa néeg. <laughs> dañuy war mbiij sax de temps en temps <laughs> diggal a alkaat. papa ma jël péage bi dem. non bàyyi ma jël à bi. waa léegi li ma wax euh, Titi comme par exemple monsieur Ndaw euh, euh, dee ko wooye neex. Hmm, moom mu lay wooy sukkar. neex. mu ne la sukkar. waa suukar de neex na. yow noo koy woowee neex nga koy woowee mu lay woowee suukar. yow sa jëkkër day ko woowee neex. oui mais neex bi da ngay prononcer parce que jéeg du wax a jëkkëram day dotom ah. <laughs> ndaw tuutal. par am na ñu ma gis am na ñu ma gis ñoo xamante ni ki ñu bëgganteel chocolat lañ koy woowee. Euh, choubi laa koy wooyee. Ah, mais tey jàppal ma gaam choubi du bidu choubi du. choubi. saara tiri non choubi dafa neex. choubi du bidu choubi du. est que waali piratu ba sax. mais est que di ko woyal. boobu neex. loo koy woyal. ah wayu neex. comme nan de temps en temps noo koy woyee. di ma jikki-jikki toog la la laay laay laay bii bi seet su bëgg naa la yàlla ma booleeg yow yaa ma xool ba ma doy nga ne man la man tamit man la yow ndaw saa ndene borom Ndoukoumane al faxa subi yow lay subi. subi subi de la xam nga titi. Eh. Eh, way na boppam sax. te tooguñu fii. mais Papa Mbaye nooy sama yaay. yaa réew. mais xaar léegi de non de. xam nga sama yaay bokk eh, <laughs> dafa cax titi. mais ci ci way titi sànq ma dégg ci yaa ngi fee maa ngi fii <laughs> te way wi yàgg na ah ouais ah ah loolu nga way ah loo wax non non subi yaa ngi fële maa ngi fii ah. loolu nga way Eh, dafa tombé wala bi way bi génn fekk na yéen a nga ca. wax na la ko dee ah. parce que man sax bi muy way man loolu laa kap. non mais eh, j'ai une bonne question. Oui. est-ce que temps boobu fekk na ngeen xamante yéen ñaar. déggoo tombé waral ay gaaf. way bi génn na ba am 3 ans xaw ma ko. Ah, oh. moom dama ko xam tey. ñibbi si takk bi am. même pas un mois. doxaanante wuñu. Oh. ndax man toog naa am 12 ans wala 11 ans aw ma far bi ma taseeg nii. man aw ma far musique bi moo newoon sama far samay doom sama kër parce que yonent bi julli sama kër musique bi micro bi aw ma sa jotu góor. barke yonent bi billaay walaay taala di nga gis nag ñoo xam ne daan nañu jël lebetal wàcce bët ak yooyu yëpp mais xam nga pour man dama ne góor bu ma bëgg rek waaw waaw dina war a mm. ñeme ñëw na ma dama la nopp mais xëy na tamit benn côté ñu ma doon ñeme wala ah xëy na wala ma leen kanam gi tamit ah ah wala tamit ñu bare dañu doon foog ne bëgguma sëy mm-hmm. te fekk bëggoon naa sëy mm-hmm. mais tamit xëy na yàlla boolewu ma gën gi dëkk nga doon wër mais dafay fekk ne man samay tem mooy li may wax léeg di nga way loo xam ne pap da nga dund keneen dund ko wala nit janook yow ne la man ngay waxal mhm. gën gi dëkk gi way naa ko xoolal ba ma def ci sax ku ne am nga koo nab te yooyu yëpp xaw ma ko moom oh. moom dama ko xam tey semaine bi ci topp ma ñibbi si Sénégal ñu marié ma après ngeen gisantewaat ngeen gisantewaat kañ une semaine après non non non toog naa fi ba def fi weer doog a dellu parce que nag man xam nga le premier octobre laa fi jóge ah. ci voyage boobu la le ah. premier octobre laa fi jóge ñoom salaam bii passé barke yonent bi le premier octobre bi maanaam ñoom salaam ñoom dees major fii la ñu toog maag yow foofu nga toog ah voilà yow toogoon nañ boobu yaa ngi doon dem ñu lay takki voilà boobu xamanteegu leen woon ah <laughs> mbirum yàlla rek ah <laughs> laal yokku laa de laal yokku laa de ah laal yokku laa de maa leen aje boo voyage laal yokk boobu nga wax ne loolu laal gën loo laalul. waaw mais nee naa la loolu laal gën loo laalul. ñàkk laa xam wóorul uh-huh. moom uh-huh. man. ca këram dem Demba pass na ma ko téléphone na ah. ndeysaan ma nekk euh, ci tournée ñoom ñu nekk ci tournée. Mm-hmm. mais man sama kër. nooy woowee maam. waaw man de Pape loolu laa ko bëggoon laajaat. noo koy woowee. Adja maam. waaw ay mag ngeen waaw. et ñëpp Papa Mbaye. lan may woowee parce que bébé Kiné. moo commencé naan papa papa mbay papa mbay mhm. ba kër gi yëpp naan papa mbay léegi sax booy ci koñ ba mhm. sax papa mbay la ñuy wax mais waa mhm. Amérique ñoom xam nga lu ñuy wax ñoom euh, Didi Guèye ñoom papa lay ak maar maar ñoom Ille Diagne ak ñooñu seen soxna yi dadi ñoom dadi la wax ñoom dadi la ñuy dégg mais caane man dama koy dégg buy woo abu mais da koy woo mbëggeel boo xam abu buuji waa buuji de ah, ah. <laughs> Ah, <laughs> ma ni waaye ñoom ñoom ama dadi xam nga waaw non Moustapha tu vois Fadi Fadi yaa ngi dégg mais caare moom buuji la xam naa buuji boo koy daal ah bu tu vois ah bëggeel ah. dafa féroce kay jële micro dégg ñu ah micro nit bu amee doom dof dëgg la waaye boo amee jëkkër ju la bëgg it nga dof mm-hmm, mm-hmm, ndax mm-hmm. tamit lu neex li ngeen di partagé wo war a di bëree ci kaw lal bi di kaf di ree parce que léeg bi mu nga am jëkkër ñëw sedd du xam yooyu dëgg la mais yow yaa koy diri ci man sama jëkkër doxaanante wuñu mais dama ñëw fekk mu sedd mais dama ñëw di ko xëcc di bëre ak moom di kaf lii la ma mayee kaf ak moom réew waaw may ah waaw. loo ko mujjee léebal benn paa la ah, woon déedéet nag yooyu nag moom xam <laughs> nga. dawal vélo xam nga secret nag paap yooyu nag secret nag du dëgg. <laughs> Titi kontaan nañu euh, dañu lay bàyyi nga dem euh, parce que vendredi euh, yaa ngi Just for You pour Saint-Valentin bi ñu dégg itam ni delluwaat nga Prince Art. mais foofu laa bëggoon ñëw liggéey ci lu am solo ah, franchement. actuellement comme man damaa xaw a taxle yenn saa yi dara xew. ci kër gi dañ may woo bu ma woo bu bureau ne ma bul wax dara. parce que li nga wax nii voilà mais mënu moo ko woon muñ en fait. non mais attends parce que dafa mës a nekk samay euh, samay euh, samay mbëbët. mais li nga wax nii. waaw rataxle woo. Mhm. Sénégal yëpp dañ ko xaaroon. ñoo ko yàkkamti woon. fekk naa ko grand théâtre mhm. ne ko sunu bos. Mhm. sunu bos nga. si ah. et eh, moom fii këram la. Pape gis nga dañu dem Conakry Guinée. Youssou yàlla na ko yàlla fay. amiin gis titi ne looy def fii. Mhm. mu ne ko maa ngi fii di liggéey ba nag sama jëkkër. Mhm. rek mu ne der. Youssou ne ko mais yow dangay ngay ñibbi. Mhm. titi ne ko mi ngi yor bébé Mouhamed titi ne ko ñibbi mu ne ko da ngay ñibbi semaine bi ñibbisil. Youssou akam fit ku mu romb ngay de ngay sénégalais dana naan dana naan ñibbil. ma su ma gis <laughs> loolu titi ñibbisi. <laughs> ma nu woon Ngoné Ndiaye ñibbil. mu. <laughs> teg ko ci loxo Prince Art <laughs> gis nga sa retour bi yàlla na nekk retour bànneex. yàlla musal la macha allah je touche du bois. Mm-hmm. da nga mën a way. amiin waay amiin waay. waykat yu mag yi xam nañ ko. ñu ndaw ñi xam nañ ko. Ah. waaye dema woon fen waaw fii sa kër. dëgg la waaw. loolu àdduna yooyu ànd. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. waaye yàqul dara. ay ndogaan ay pakk waaw ay kii. waaw yooyu mënul ñàkk mais mënul ñàkk. yow fii sa kër la on te félicite. Mm-hmm. yeggali ak sa sago. Mm-hmm. papa Cheikh. Mm-hmm. xale yaa ngi. waaw kay Titi merci. ba vendredi incha allah Sénégal yëpp dinañu ñëw célébrer Saint-Valentin bi Just for you. ak ñu ngi fay jox rendez-vous fan yëpp. Mhm. parce que yàlla def na tamit depuis suñu premier octobre bi ak 25 décembre bi ñu defoon euh, Ravin. Mhm. Ah, après dañ toog a doon noppaliku. Mhm. nañ def soirée vendredi. le 17. incha waaye comme ni ko mbay waxee tamit maa ngi kontaan ci plateau bi nuyu ñëpp. ndax tey mun naa ne samay xarit ñi ma bëgg sama xol laa fi fekk. ndax foog naa ne booy wër xor bu rafet rek. ba gis Mbaye Gueye mu nekk suñu kilifa goo xam ne mu nekkee bàyyi ak yàlla rek yàlla guddal fanam mbay ñàkk na ki ñaan xolam rafet na mhm. mbay uuf na ñëpp dafa mel ni salaam mi ci man moo ma yar mhm. ndax ba may njëkk a jox micro naa ma yow yaay sama Youssou nduur du woon tey mhm. ma ñëw nag ci kër gi comme ni ko waxee Youssou yaatal ma teg ma ci loxo ay rakkam ñu bëggal ma seen bopp ñoom buuba ngóonee Ibou Ndour njaga bàyyuma kenn ku lim juum mhm. ba ci seen yaay mhm. tàndee soxna mbub mhm. bëggal ma boppam heure bu ma génnee album dem fa mu ñaanal ma comme sama yaay ji may ñaanal donc kon Youssou dama koy bàyyi ak yàlla ndax tamit euh, ki nga xamante ne bii dafa ñëw na la kaay uuf la ci wetam bu ma soxlaa ñëpp ñàkk Ndoura Wal Bergal la ma faral daan wax démb tey soog a ñëw rek laay waxaat sama kilifa la maa ko bëgg mu bëgg ma te loolu la yàlla def. Mhm. ma jaar ci kër gi nag ma ko benn yoon. Mhm. donc yàlla na jàmm yàgg. Mhm. di ñaanal jàmm Sénégal. di ñaanal ñëpp. yow Sénégal la bëgg en fait. waaw Sénégal am bëgg Pape Sénégal la bëgg. dëgg la xam nga loolu dafa neex Pape mënoon naa ñëw sama dëkk bañ ma. dëgg la nit mën na fi way. te bu ko nit xoolee mu am défaut. Sénégal mais man nee naa Sénégal àddina bi ñëpp a ma bëgg. wallaahi démb bi may laata ñëw benn américain moo ma woo. mi ngi dëkk ci dëkk boo xam ne moo gën a sore si Amérique. xaw ma woon ni sax ne dina jéggi frontière bay xam sama musique ba dama félicité xam ne ci Youssou Ndour laa nekk te loolu tey bu doon Youssou amaana xëy na du ko xam mhm. donc damay génn nit ñi di ma bëgg bu ma gëjee way sax fan si dañ may di ma naan lan la ci loolu ne kon loolu am na fu yàlla def ma nekk ci xoli doomu aadama ak awe mhm, mhm. di leen wax nag ne nañ jaan ñaan jàmm rek aar bi yaatu na ñu ñëpp benn la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay fii sama kër la musique bi yaatu na ñëpp laa yéen a jàmm yàlla na jàmm yàgg may gërëm nag sama fans yi nga xam ne tamit bàyyiwuñ ma benn yoon si vendredi la. diaspora bi mifa bi nekk Sénégal ah. Afrique ñëpp lay gëmee. ñoom bu Diame ñoom Boubacar ngoog ñoom ñoo yor sama fans club bi nekk ci diaspora ah, bi mifa bi ñoom chiwi yor bi nga xam ne moo nekk Sénégal donc maa ngi gërëm ñëpp Gambie noir chot ma kenn di mm-hmm. gërëm sama yaay sama mm-hmm. famille mm-hmm. sama jëkkër tamit toute sa famille ma kenn samay doom ak ñëpp ñëpp yuusu nag jërëjëf ca kaw ca kanam dama koy bàyyi ak yàlla. sama waxu démb mooy sama waxu tey dama koy bàyyi ak yàlla. xolam bi mu am ci man. Mhm. yàlla dina ko gën a fay ndax def na ko ci ñëpp nag. merci siiwal na ku ne. yëkkati na ku ne jàppale na ku ne. Mhm. te Youssou Ndour nit la bu nga xamante sama waxu démb mooy sama waxu tey ñàkk na ki ñaan na am na itte ci moromu nawleem day yëkkati artiste ni mu mel la lay téye. Mhm. ak tonto Gaston Meng ak Mara Dieng mhm. maa ngi gërëm ñëpp. merci on t'offre euh, euh, Kadibi euh, Kia waaw Kër Aram uh-huh, jàppale nag. Uh-huh. Titi moo lay offrir panier boobu ah, noonu. panier Kër Aram jàppale la. waaw ah, Kër mhm. Aram jàppale nga am ci une gamme complète. bopp bi ba ci suuf. nga toppatoo yaram bi bala ngaa dellu. Mm. ah, ah da nga koy iri <laughs> comme disait Ngoné. merci merci Titi kontaan nañu merci nuyul ñu monsieur Ndaw alors euh, am na ñoo xamante ni ki ñu bëgganteel euh, chocolat la ñu koy woowee mais Mbaye mus nga dégg euh, Youssou woo ayda nan la koy woowee. Aïda. Mm-hmm. mais ni mu koy waxee dafa neex. nan la koy woowee. allo chéri yi. <laughs> <laughs> jaaraat fa ma xool. non non non. koy woowee ba taay mu woo ko. <laughs> ne ko lan. allo chéri. <laughs> mbëggeel boo ko bëggee dëggal bu la neexee nga wutal ki ngay bëgganteel euh, tur alors moom mi ma bëgganteel bee la may woowe mais yenn saa yi itam ma bëgg ko ma woowee chocolat alors à propos chocolat lu ñuy jëfandikoo la d'habitude euh, ci yi fi bëggante loolu moo tax bu yàggul safari euh, génnee woy boo xamante ni chocolat lu ñu ko tuddee et je reste convaincu que hymne la pour Saint-Valentin bi ñu déglu leen mais venez quand même ñu nuyoo tuuti balaa ngeen di dem c'est vrai que euh, da ngeen nekk dangeen ngeen jaar juste vite vite fait pour seet suñu donc chocolat euh, mooy woy bi génn après Ndiaye Kumba Anta Ndiaye. <laughs> un tube magnifique Pape Cheikh un tube magnifique ah c'est une <laughs> que fii képp ku toog yaa ngi xool euh, léegi naka ngay woowee. chocolat mhm. est-ce que jëpp nañu woowee chocolat chocolat caramel. <laughs> chocolat caramel. ouais. Merci. alors donc parlez-nous euh, parlez-nous rapidement euh, tey Saint-Valentin bi euh, defe naa woy bi wax naa ko sànq nekk na hymne de carrément. bien na nekk na hymne de pour pour pour aji bëggante ji. voilà waaw ah, defe naa mën nañu ko taxawee nii rek ah, parce que léegi ñu jeexal mu ngi bëgg a ñun tamit on va être partir. parce que le devoir conjugal nous appelle. donc ñun tamit il faut ñu dem àggali guddi gi ñun tamit ah quand même ah, ñi nekk ci ginnaaw ñun ñu nekk ci kanam mais très rapidement ñu wax ci chocolat ak safari c'est un grand retour. retour grand retour ngeen def en fait. Euh, bien sûr ouais. hein, donc di leen remercier euh, di souhaiter ñëpp euh, bonne fin de Saint-Valentin à tous les amoureux et les et en fait. donc chocolat bi dañ ñëw mayaat leen ko donc comme fan si yàgg nañ ñu doon xaar. Euh, ñu am occasion génnewaale ko avant Saint-Valentin bi. bonne période donc euh, di leen remercier mm-hmm. di di rafetlu waxtaan bi. Mm-hmm. parce que nice na trop ñu ngi doon leen déglu. donc euh, am na lu ñu si jot a jël dencal ko suñu bopp. Mm-hmm. mais comme li Euh, Tata Ngone da nga am loo wax lu am importance ma bëgg si dolli juste que góor ñi. Mhm. Euh, di leen wax ne jabar kenn du ko mat dañ koy mën. dëgg waaye tamit euh, sëy kenn dëkk kenn du ko yenu dañ koy woyofal. Mhm. ñun ay xale lañ. Mhm. donc dañuy roy si li ngeen di wax rek. donc di ñaan daal. Euh, képp kuy bëggante rek nga mhm. bëggante ci sincérité mhm. ci dëgg ndax mooy njëkk te mooy mujj mhm. donc bonne fête à tout le monde et merci à notre papa li nga xamante ne moom moom euh, c'est la famille ah ñoo ko ah bëggal suñu bonk ah euh, merci à tout le monde voilà la dernière fois def ngeen première partie Youssou Ndour ak Super Étoile Sénégal yëpp a ngi koy fàttaliku ñu waxaat projet yi fàttaliwaat ko téléspectateurs yi daf ci am solo aussi waaw ça a un plaisir et un honneur déjà ñu def première partie Youssou Ndour mhm. donc xam naa ne Sénégal artistes yëpp bëgg nañ koy def mhm. euh, ñu kontaan si di ko merci que keroog ñu def plateau Yeewu Leen mu ñëw foofu donc euh, vraiment félicité ñu encouragé ñu aussi mhm. aussi tamit yéen ñëpp suñu papa Salama suñu maman Ngoné Ndiaye kii à tout le monde suñu papa ji ñu ngi leen di remercier yéen ñëpp on vous adore maintenant euh, projet Safari mooy c'est un album qu'on prépare et mon chocolat c'est juste un avant-goût incha allah parce que fan yaay Kumba Anta pour sargal jigéen la mais chocolat it euh, mbëggeel euh, dafa dafa dafa war dafa war a nekk lu neex euh, ci ci jigéen bi encore. Mhm. déjà maa dégg sama tata Ngoné naan jigéen booy sëy da ngay <laughs> <laughs> nee na booy wax da ngay dooj donc ñun chocolat dañ koy baaral tamit moom jox na may idée. ah da ngeen di baaral chocolat ah, <laughs> moom jox idée boobu te ko si def ah. chocolat. <laughs> <laughs> merci on est très content Safari chocolat voilà donc vous restez avec nous ah parce que euh, suñu partenaire yëpp laa bëgg ñu gërëm quand euh, dama bëgg euh, ñu woo léegi nii Darou Salam traiteur ak suñu xarit Habib Ka à chaque fois ñu dem Ndar du ñu du ñu fay lekk du ñu fay naan ci restaurant am la ñuy dem pâtisserie boobu la ñuy dem donc Habib il nous a fait l'honneur de venir nous voir très rapidement merci kontaan nañu lool su fekkee yenn a ngi ñuy seetaan depuis Saint-Louis n'hésitez pas ngeen dem Darou Salam Euh, traiteur ak euh, Habib Ka Habib kontaan nañu euh, buffet bi ñu leen may tey ci émission spéciale Saint-Valentin bi yaa ñu ko may on est très content merci gis nañu li nga ni nga bëggee Futurs média defe naa gërëmaat la répétition lay nekk très rapidement pour ñu jeexal ñun kontaan nañu. Mhm, mhm. ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziare di leen bëggee. Mhm. ñun tam jógee ndar ba fii. ndax kóllëre dafa am solo. bi si jiitu. Youssou yebal nañu. am teraanga yu mu teg ci suñu loxo. Mhm. pour ñu ñëw indi la yow Pape Cheikh. Mhm. nekk symbole ba ca des groupe Futurs Médias ñoom seen bopp. Mhm. ñoom itam préparé nañu beneen gâteau. muy deuxième gâteau boo xam ne ñoom ñoo la ko njukkalee di la ko ndokkalee ci sa bés bu mag bi. troisième bi muy Daaru Salaam ñoom itam seen ak seen euh, en euh, personnel yëpp. <coughs> ñu préparé benn gâteau. ñoom itam ñu jox la ko ci sa anniversaire. ñu yebal itam. Euh, mhm. toujours ci teraanga bi. Mhm. ñu dem si géej bi. ñu jël mhm. fa benn jën dem ci dex bi jàpp fa beneen jën muy ñaar. mooy salaat boobu ñuy présenté leen ak yi ànd ak moom yëpp. donc la ci des. ñun comme digal dañ yebal rek. voilà donc indi nañ teraanga bi ñu ngi bég di nuyu waa Daaru Salaam di nuyu waa Ndar yëpp. di leen sargal. di wax yal na nga def. ci téeméer at. amin amin ñun moom kontaan nañu yàlla moo leen yàlla yàlla yàlla moo ñuy fayal euh, Daaru Salaam euh, traiteur kii yaa xam na ci dara ñun ñuy liggéey fii à chaque fois bu ñu demee dara ay buur la ñuy nekk foofu euh, grâce ak Daaru Salaam traiteur voilà merci merci en tout cas loolu li ma see dolli rek mm-hmm. Didier Colane ñun dañuy roy itam ci mm-hmm. Youssou Ndour mm-hmm. ay jeunes la yoo xam ne liggéey moo ñu itteel wéeru wuñ ci ginnaaw kenn ginnaaw yàlla donc ñeenti at. Mhm. am na bi suñu ñëwee ndax dañ ñuy mhm. recevoir. Ah, ah. ñi topp si ginnaawam. Ah di jeex si ay tànkam. bugg a tekki pour suñu réew. Mhm. loolu daal mooy kontaan kontaan kontaan nañu en tout cas. merci alors ñu ngi gërëm bu baax waa Kër Aram euh, euh, jàppale gërëm euh, Palm Beach Framissima sànq may nañu Papa Salam ak sama yaay weekend ci suite fi nga xamante ni mooy Framissima mais dañ ciy teg beneen boo xamante ni pour Papa mbay la ak hmm. Maam Ndiaye. voilà. comme man ak yaa ñu ngi foofu. xanaa neex papa salaam mu ñëwee ak ak sama yaay. papa Mbaye ñëw ak sama beneen yaay. ak Daaro de temps temps ñëw seet si leen. mayaale naa Daaro ak monsieur Samb. de temps ñuy ñëw. Ngone Ndiaye géwél nag jolie offre euh, euh, coffret boo xamante ni euh, mu ngi jógee kër alam kër aram jàppale comme moom dafa bëgg yu baax bëgg defar ba mu baax. secret de femme ay gamme de produits yu baax lañu ñu koy la ñu ko jox moom. waaw Ngone Ndiaye géwél. Ngone Ndiaye nag kër aram jàppale boo lay jox loolu gamme de produits yu baax yoo xamante ne pour defaraat yaram. <laughs>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 waaw waaw. Eh, jox ko micro. waaw waaw. liggéey ak waaw. tey tuyu Pape Cheikh Diallo. Eh, xam nga ni boo wootee kuy sa baay Abdou Salam Dialloy sa baay Fatmata liggéey Mbose ye liggéey sa baay Seng Sengi Birame Gueye yaay Awa Diagne. dëgg waaye góoru ngoone njaay saala bi nga ñaay ak ngambeen ya taalibe sëriñ fàllooy galas happy birthday ay waay namba happy birthday to you ak malaamin yelli jeey ak kan ak mose yelli jeey ak kan ajaratu daba kamara la ñu woo yaayam kuy baayam alaaji Babacar Jalla la ñu woo baayam an ki mën a way nag ana Mor Mor maa ne ku mën a way léeg-léeg mbaaxalal yàlla la jalo xarit ba la koy jox xaritam la koy jaglil maa ku muy dara jaal masata ma ca jaaru ngalam baay maamam ak lan sa maama pesoon commandant ba ca Ndar ki yaa ay dara shérifoo yi shérifun bun shérifun bun shérifun dafa wayal góor yi ah. ameen jaata fa si naari góor yi tekki nañu leen ku man nga war yeggal kuy sa borom kër nga toog ay chéri mormaane jarbatu mbay fay kuy ndeyam ah ndari la ñu Aliou kuy baayam. Ah, Alaaji Cheikh Gueye Diop la ñu koy baayam. kuy ndijaayam. may seng seng. ay déggal lii Serigne Mame Ndiaye. seng seng Ibrahima Gueye. Ah awooy Cheikh moom awooy awooy bokkum ah yaayum Salam Diallo. awooy Farmata Yelli Dieye ak Malamine Yelli Dieye. càmm ñu ngoone Ndiaye daat naan li. biram teen nag biram ñoo. kii saali bi gi njaay gambeeni camiñ ki ay dara taar bi paap dundal te mu yëg loole say may di baawaan dundali yàlla hmm. waaw kuy sa yaay soo dugg sa jëri di ma mi ci mbéy sa sa ngi bërëm géy xaritam waaye yaayam jala ni jooy dégg nga lool de doomu jaleeg Fatou Mbaye ngi man de walu naa la ah, happy birthday to you ah. Pape Cheikh Diallo yàkk jomb ñaaw Salam Diallo sa baay ah man de walu la juddu bu rëy ndey baay waaye fulaak fayda borom Pape Cheikh naa la ah man de tàmm oh! naa. merci xam nga xam nga tey suba. Euh, euh, télé bi dañ maa rey ba ma dee. léegi nag bu dee dangeen bëgg ma wër euh, <laughs> morgue buñ ma suul wax leen ma safur kontaan naa kontaan <laughs> kontaan na yaa ko def torop torop torop torop torop torop je remercie tout le monde. daba sey kii sama sama daba la. sama sama sama xol la sama sama sama xarit la. Euh, ngay nit ku baax ba noppi itam di ndaanaan bu mag Sénégal bëgg la lool lool lool yow nga leen koy delloo ci baat bu neex ak mën li ngay def sànq rek ñu ngi lay tooñ ca xamu ni woon yaa ngi ñëw ci plateau bi merci en tout cas anniversaire bi xanaa c'est pour un mois encore Mbène Diatta sekk nag yow kenn amul sa fay kenn du Mbène ah voilà merci euh, Mbène jaata Seck Mbène sama Mbène la loolu defe naa euh, Sénégal xam na ko merci ci surprise bi ngeen def euh, ci soirée Saint-Valentin bi merci pour ce magnifique tableau da ngeen maa a rey rek mais du ma ko nangu dañuy tàggoo bu ko defee émission bi jeex voilà merci beaucoup euh, ñu ngi gërëm voilà allez gërëmal sponsor yi. di remercier par chef nga xam ne ñoo ñu accompagné woon Aram jàppale Palm Beach Sético ah. Darou Salam traiteur ñoom ñi nga xam ne ñoo indi gâteau yi et puis la maison des fruits Anita Sarr. mu ngi offrir euh, donc un bouquet de fruits bouquet de fruits bi Pape Cheikh dama bëgg nga yëkkatil ma ko. Euh, mm-hmm. bouquet de fruits baa ngi donc dama bëgg mu ngi noonu nga yëkkatil ma ko. mais mënu ma ko taxaw te taxaw di maa sonn fi. c'est encore la Saint-Valentin. voilà je te rappelle. donc regardez c'est ça voilà voilà. Mm. Mmh. c'est ça voilà je <laughs> <laughs> donc bëgg ci euh, bouquet yi Pape Cheikh tey woto 77 654 23 54 donc euh, euh, Pape pense que jeexal nañu. voilà di remercier ñi nga xamante ne ñoo ñu euh, accompagner tout au long de la soirée. Euh, Tuuti merci à Tuuti pour cette très belle robe mu ngi nekk juste en face TFM euh, donc bu fekkee bëgg ngeen comme la robe mën ngeen dem seeti ko merci beaucoup ma Tuuti. Anta i service. Uh-huh, uh-huh. Anta i service. ok Anta i moom moo la defaral tableau bi. voilà kontaan naa ah. léegi ah. <laughs> jàllu jéeri waaw merci bu teel lu mu def la ku béygee dëgg la dëgg la li nga mel lan looxal tëjal <laughs> voilà mu ngoog merci à tous euh, merci beaucoup euh, euh, papa kontaan nañu yow it yàlla na sa jàmm yàgg yàlla na sa jàmm yàgg ñu ngi ñu ngi ñu ngi xaar yu baax yi ñu ngay jagleel sénégalais yi tout le temps diggante sorti album ak spectacle ak émission bi nga euh, àndandoo ak TFM plainte ba comme retiré guñ ko dégg naa changé nga turu émission bi. final finalement mu a bëgg ay jooy. man ñi duñ ma rey. Ah, non man dama bëgg lu baax. duñ ma rey may dee. duñ ma rey. j'ai les larmes aux lii rek. ah oui waay ah, <laughs> merci waaw comme ni ko ñëpp waxee rek <laughs> ah, yow. Euh, ah euh, euh, kenn mënul wax ci yow. Ah, dañ bàyyi rek ak yàlla. ah nee naa la li sëñ Fallou waxoon Senghor rek nan la xool. jàkk bu la kenn piis te tubaarkàlla laal yokk yal na yàlla fal la cat ak sama nawle yëpp macha allah ñaanal nan la yàlla yal na yàlla guddal sa fan nan la ñaanal yàlla rek nan la ñaanal yàlla. daal doy na waar quoi. voilà jeex na donc mu ngoog kon ñu tàggoo merci à tous. Euh, boo doolee rek jël suñu heure. waaw sànq rek liñ la doole liñ la wax wax loo noonu du woon sax heure buñ la mën a. ah pour ndekk bi. moom day xaru saa yu ñu demee ndar moom saa yu ñu demee ndar ah, dañuy ñibbi ak am ay problème daba sëy daba sëy daba sëy kontaan nañu lool. merci kontaan nañu lool. am naa mbégte bu baax kontaan nañu lool ci déjà yow Sénégal yëpp la bokk. Hmm. yow àdduna yëpp la bokk. donc dafay neex tey nga nekk ci anniversaire démb laa la bëggoon defal euh, vidéo pour envoyer la. mais malheureusement. dama xawoon tawat topp moo rek. waaw gis nga bëgg ko rek. moo rek <laughs> dama kontaan nag. parce que xam nga nga am bés bu toll ni anniversaire sa bés day tey sa mbokk yëpp teew. sa am di jàmm yëpp teew. Mhm. yaa ko may sa bopp. Mhm. ndax fi Sénégal ñëpp am farata. Mhm. ñëpp am fulla ci seen bopp. te ko yëgul yëgu la. waaye nit ki la yëg daf lay sonal. tonton wax na ko léegi nee na kubéer. Ah, butéel li mu def rek la kubéer di xëy. c'est important. kontaan koy ñaanal man nag lenn ma jaaxal ñaari laa bëgg a xam lan ah wax na ko sànq. <laughs> maanaam mbay. waaw waaw non. kan la euh, euh, rose. waaw taamu di ko jox jigéen. waaw rouge. ànd ak noir. Mhm. mooy mbëggeel Saint-Valentin. man dama la gëm yow. déggoo ma déggoo de. maama ngi mbay ngi mbay ngi ndare kontaan na leen xam naa xam naa léegi daal awooy rek. awooy loo déggati rek neen awooy. awooy dama sëy mën a way. awooy awooy waaw. ba pare dama bëgg moor. awooy la. waaye Mbène Diatta war na génne album bu ah, bees. ah voilà <laughs> awoy tey mooy jour feetu Adja Ombeliko ak jëkkëram. Adja Ombeliko ak Mika waaw gis nga tey mooy seen ah, bës day ah, tey seen sëy. ah di tamit Maya. Maya chéri Abdoulahat. voilà xam nga ñoom du ma bàyyi benn yoon. du Blackboard yi. voilà merci beaucoup merci Mbène kontaan naa ci yow. yow tamit yàlla na sa jàmm yàgg nañu ko abal micro mu wax tuuti moom tamit moom sama xarit la te ndaanaan bu mag la fii ba fii ba bitim réew dañu koy bégee festival yu mag yëpp représenté nga fa Sénégal ba tey euh, defe naa euh, tey euh, li nga def nii man moom kontaan naa lool benn jaata sekk. waaw man moom yàlla dogal na ne sax mënuma wax. Mm-hmm. parce que bu ñu waxee rek amatuma lu may wax. Mm-hmm. Pape Cheikh yow. naa nee naa la toujours rek ki tax nga gën koo wër gën war naa tax nga gënale ko ku mu warul gën. Pape Cheikh mënoon nga ni génneeguma album. du ma célébrité. mais yow munoo toog ba jóg sax te tuddoo mbeen. artiste bu damay dem bari ki démb sama anniversaire Ndiaye Sorano. grand théâtre ku tase ak ne ma Pape Cheikh mbeen bu Pape Cheikh Diallo. loolu yow la. ku lay xaar yàlla na xàddi. ci barke Seydouna Mohamed yow. tax nga may dem ba Europe nit di ma woow muy aji gémme di dindi ay or di ma may ba Hollande mm-hmm. li may wax maam Sira xam na ko parce que booy booy wax bul seede lu dul dëgg mm-hmm. yow yal la yàlla defal jàmm parce que mun ma wax yàlla su ma bëggee na ma loolu laa bëgg yal na yàlla bàyyi ñëpp ci barke Seydina Mohamed kontaan nañ trop merci ku lim euh, ku lim ku lim juum du ma du ma lima merci ñu ngi gërëm bu baax euh, euh, public bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëwoon ànd dañoo dar sama jabar papa en fait pour ñëw seetaan si tey <laughs> émission spéciale bi kër kër euh, ñu ngi leen di gërëm bu baax euh, Framissima Palm Beach euh, tamit ñu ngi leen di gërëm gërëm tamit Sénico Daaru Salaam traiteur ak notre xami Habib Habib Ka ñu ngi koy gërëm bu baax Habib Futur Média amul sa fay ma ko ca kaw ngi gërëm tamit la maison des fruits Anita Sarr elle a offert donc un bouquet de fruits pour le plateau spécial mën ngeen leen contacter ci 77 654 23 54 merci à Bouba Ndour moom moo produire émission spéciale bi ñu tàccul ma ko bu baax moom moo tax euh, lii yëpp am merci voilà kon jeex na. jeex na xanaa lenn rek. Mhm. Euh, di woo ñëpp le la mhm. le 19 waaw. ak béninois yi. waaw. ñoom ñëpp ngi ci dëkk ñu ngi fi ba ba tey. fecc kum tànn biir bu rëy. ak Mbaye Dieye Faye. Sorano ak 5-5 Sorano le mhm. beneen bi di wax waa Amérique yëpp. happy Valentine Day. sama Ndiaye soxna. mais kan mooy Khady Diémé. dinaa du ma lim kenn voilà je remercie tout le monde xam naa jikkoom li moom ma kenn voilà vendredi bi yaa ngi bled au bled au bled vendredi salaam Diallo mu ngi bled dimanche Ngone Ndiaye géwél mu nga géej ga Payot xam ngeen fa côté centre aéré Bessayaawa boo demee boo laajtee rek après ñu wan la voilà soirée daxin yi eh ah <laughs> ngi gërëm tamit euh, Marie Dieng Marie euh, Marie moom moo coordonné émission bi yëpp sonnoon na mais euh, wane nga Pastef bi tax ñu dénk la service boobu le merci en tout cas merci en tout cas pour bugguma lim en en réalité parce que ñi ma ñi ma woon cofeel tey dañoo bëri lool donc su ma limee rek mooy loolu merci en tout cas à tous sama ay collègues merci à mes parents merci à tous mes amis merci à tous les sénégalais en tout cas xam leen ni ñëwee dàq te euh, dëgg-dëgg gis naa ni ngeen mel ci man merci beaucoup Pape Samba Thiam ak euh, tonton Mac mi réalisé ubbil ñëpp bunt ba équipe technique bi yaatu ci lool caméraman yi vraiment ñu ngi gërëm ñëpp ah euh, Marie tey yow laay jox ngërëm gi nanga nga fexe ba bu ko yóbbul Ibrahima de jox ko waa Saint-Valentin à après demain incha allah ciao